ñu ngi leen ko indil tey ci wàll diine islam ci wàllu taarix ci diggante Sénégal ak Gambie kër sëriñ si lu ci bari ci Sénégal bi jokkoon nañoo Gambie waaye rawatina nag kër Hadj Abdoulaye Niass El Kabir wax dëggum yàlla ndax euh, Saalum sëriñ si ci Saalum Hadj Abdoulaye Niass jokko bi mu jokkoo Gambie dama ne loolu kenn mu faliwu ko ndax euh, am na fi fukki boo xam ne bii di muy jaamaarloog français yi ñu ñëw Gambie taarix ba gudd la waaye lu ci mën a nekk ci yi taxi diggante eighteen ninety ba nineteen hundred xam nga su ma waxtaan ak euh, Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahim mu ngi maa nettali ne moom day li ci ëpp ci ay rakkam lu bari Gambie la ñu juddoo léegi la nekk ay français rek waaye euh, ay anglais ñu woon kon moom mu gën a àddina nineteen hundred waaye lu judd loolu Hadj Abdallah su way juróom nekk Gambie nekk na fa ci ay dëkk yu ñëw Banjul ay jamal kilifa yu bëri ci Banjul moo leen firil alquran doon dal kër euh, góor gi Ibrahima Niass góor gi Ibrahima Faye di bàyyi ci fi la xaaju Omar Faye ci Dobson Street ci Banjul tafsir alquran xaadi Mass Diack ñu ne Tamba euh, xaadi Souleymane Gueye ñu bari ci Banjul moo leen firi alquran nekkoon na xaritit suñu génn kilifa gun daan wax góor gi ndeene xoroja kooku ci afdaay am na jàkk ji nekk ci afdaay ci sixty five Hagan Street jàkk jooju Hadj Abdalaye Niass moo ko rëdd ak tànkam ya jàkk jooju ñu bari sax xamuñu ko ci Banjul jàkk jaa nga fa ko defee taarix boobu ñu topp ko loolu la Cheikh al Islam Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahim topp ma su dëgg Banjul mu nekk li ñu bari wàlli taarix jab dalaay ñaas liggéey ba mu fa def na mu fa daan ñëwee ñu def ko njiblaan bi nga xam ne bàyyeekoo na fi it xalifa euh, xaj abdalaay ñaas as ñu waxtaan ak moom bokk na ci alimaam euh, Cheikh Hassan yal yàlla sax ci barkeem moom jamono bu nekk daanu ñëwee rek ñu waxtaan ak moom waaye lu ci bari loolu ci rajo la woon waaye léegi nag ci guddi yi ñu toll alimaam Seydina Cheikh Cissé wax dëgg yàlla euh, dajjeel ñu am télévision boo xam ne bii loolu wërsëgam la yàlla ko yàlla yokk alimaam Seydina kiite ma di la njëkk a ñaan ngeen nuyuwante mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi altayibin altahirin tabiin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawm iddin mbokk yi janoog ñun ci Gambia ak Sénégal ak fu mu mën di nekk ci àddina ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp bu sel kenn ku nekk ci sa tur ak sa jam di am kontante lool pour tafeek suñ gan ñu tedd ñi jógee Banjul tey pour ñëw waxtaan ak ñun ci loo xam ne lépp ci lislaam rek la aju ak mbokk goo xam ne ci yàlla la aju te mbokk xam ne ci yàlla la aju ñi am wërsëg rek ñoo koy jokku ndax nit ñi deret këf na leen ba mbokk ak diine ñu ngi ko teg ci suuf te mbokk ak diine moo jiitu moo war a jiitu kon ñi yàlla may xam-xam may leen xel yu set yëpp mbokk googu la ñuy toppatoo te mbokk googu moo nekk suñ digganteeg am moo tax ñuy nuyoo nuyoo bu sell te ndokkeel itam ci weer yi tabaski bi nga xam ne mu ngi ci suñ kanam ay buntam léegi mu ubbeeku suñ kanam muy fukki fan yoo xam ne yàlla gëñ na sax ci fukki fan yooyu ndax boo ne wal fajri wala yaalin ashrin fukki guddi yooyu am nañu wax ne fukki guddi tabaski la moom yàlla gëñee noonu kon li yàlla fonk ba gëñee ko su yàlla defee ñu nekk ci ay buntam tey suñ taseeg yéen danañ leen ndokkeel dañ ñaan yàlla yàlla may ñu ñu teeweyaat ko déwén ñun ñëpp ci gën jee rafet ci teewe gën jee rafet ci fekkee te lépp loo xam ne ñu ngi ko ci am ci ci lu yàlla yombalal ñu ko te buñ ko defee itam yàlla na ko nangu ñu ngi ndokkeel jullim yëpp di ndokkeel alam islami yëpp di ndokkeel ummal islami yëpp di jiital Gambia di ak Sénégal di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci diggante ñaari réew yi def barke itam ci nit ñi ko dëkkee yokkute ci zahir ak ci baatin ci barke nante yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi laan ndokkeel te di la ñaanal yet wi yal na ko yàlla yaa del ci sa loxo mbiri maxama mi ko gisee Euh, lu dox ba egsi ci suñu loxo la waaye du loo xam ne ñun ñoo doon dox di ko gàttandu ji ndax li nga xam ne moom lañ defoon suñu xel ak li yàlla feeñal benn li ñu suñu xel xaj na mooy imaam mu nekk fii jiite ñu di ko dimbale ci liggéey boobu waaye yàlla comme lu ko soob mu def te lu ko neex mu def li ma wax ci fan yu njëkk mais ne mënuñu gëm yàlla démb di ko wéri tey te am na loo xam ne suñ ci werante wala ñu wax ci rek weddi nañu li nga xam ne moom lañu waxoon démb moom la ñu gëmoon ah imaamotu bii nag dafa nekk loo xam ne bàyyi moo ko dénkaane woon ne maa ngi sàkku ñu jëme ite yëpp ci mottali jumaa ji jumaa ji su matee yi ci Cissé mooy limaan bi moom ak ay doomam daal di set ne Xasan gannaawam ku soob yàlla ku soob yàlla boobu ba tey mën nañu wax ne dafay wax ci kër Sidi Ali ba tey ci ay doomam kon yàlla def na lu ko neex Sidi Ali ñëw na liggéey na liggéeyam ci juróom-ñaari at gannaaw baay liggéey fii imaam ñëw def liggéeyam ci ñaar fukki ak juróom-benn yàlla def na li ko soob ah, limaan boobu ñëw na ci suñu loxo tey ñu ngi ci góorgóorlu comme li ma waxoon rek ne leen mooy suma njëkk leneen lu ma ciy teg ci àddina soxla ñaareel lay doon waaye lii mooy suñu liggéey bu njëkk ñun moo tax duñ jiital dara ci kanamam duñ teg benn soxla itam ci kanamam ndax loolu rek mooy li nga xam ne itam mooy gërëm loo ñi fi jógee mooy gërëm loo jur yi itam mu wóor leen ne rek liggéey bi ñu nekkoon bàyyi nañ ci koo xam ne dana ko mën a téye dana ko mën a continuer ko nañ ko bëggee ñoom moo tax itte bi mu laaj yëpp incha allah nañ ko ci def ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ba nga xam ne danañ ko def ci ni mu war a amee euh, jërëjëf Cissé diggante sa wayjur si na alim ak Mawlana Cheikh l'Islam Hadj Abou Rahim euh, seen jokkoo ndax man nga ñu seet nettali dara. waaw am na naari ganaar bu fi ñëw tey li ma laaj ne ma ndax xam nga ban at lañ jokkoo ñoom ñaar mën na ko gisuma fu ñu ko bind waaye gis naa lettre bu ko bàyyi bind boo xam ne mu ko bind ci junne ak ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ci gàddaay gi mën nañoo wax ne ca déwén sa sax ci lañ door a wax ne faylu am na ndax junne ak ñett téeméer ñeent fukk juróom-ñett moom la ñuy tuddee amul fayda maanaam ci la ñuy wax ne ci la faydu bu feeñ kon moom jokkoo naa moom njëkk faylu bi am te lu jiitu loolu itam maam alaaji abdoulaye tukki mi mu mujj def ci àddina nga xam ne jooson la ko dem ndax mokk suñ maam alsan dañoo jaayante woon ci seen diggante ku ci njëkka koy ji sa borom ka fi des dana ñëw ci sa bàmmeel jàngal la fa kaamil maam alsan génn àddina ci ñetti fan ci weeru koor bi ñëwee wax ko maam alaaji fii ci kaw la mu ne buñ naanee danañ ñëw jàlle dañ demee ba koor gi jeex bañ naan ci la maam alaaji jógee fii ànd ak lenn ci ay doomam waaye bokkoon na ci alaaji xalifa ci la bokkoon dem Joosong pour jaale ji maam alsaan moomu ak maam Samba Thiané mi nga xam ne moo jur yaay sëriñ Aliou moo njëkkoon a gaañu ba demee jaale leen ba pare ñu ne ko tafsir alsaan nag lim bàyyi lépp dana xale bii doomam yi ñuy wax Aliou ci la yaakaaram nekk te lim bàyyi yëpp moom la ko bàyyi maam alaaji ne kii ku ko booleeg suma Ibrahima yi danañ mën a ànd moom moo ko fa jëlee Joosong indi ko Kaolack te tukki moom moo tukkee mu mujj ndax ci yoon daanaka feebar bi ko bi ko yóbbu ci yoon wi la ko feeñoo waaye nettali na sax ne biñ ñëwee ba boori ko si te maama laaji ne moom këram rek lay fanaani te boobu oto yombewut nii mu ne ñu ne ko oto amut mu ne moom këram rek lay fanaan yàlla def benn subaa bu nekkoon Kaolack jaar fa ak otoom jël ko indi ko këram bàyyam sax mu ne nee na xaw ma kañ leen di gëm suma xutbaan yóbbi waaw waxoon naa leen ne tey suma kër rek lay fanaan ñëw indaale Sidi Ali moom ci këram. loolu mu ngi nekk mille neuf cent vingt deux maanaam junne ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. waaw Sidi Ali wax na ne maam Alaaji moom la njëkk a mu moom la mujj a bindal moom la mu a bindal xam-xam. ci kaw suuf ba mu ñëwee mu boole koog bàyyi wax na ne moog bàyyi ñoo bokk nekk mu ne leen tàggale ci néeg yëpp mooy bàyyi takk jabar bu génn nekk waaye ba mu ñëwee moom ñoo ànd ñoo bokk nekk ñoo bokk lépp am na yu bëree bëree bëri yuñ ci nettali yoo xam ne ay karaama yoo xam ne bàyyi wax na ko xañ na waxtu wi du ko laaj waaye lépp rek li muy tegtale mooy ne ànd la boo xam ne ci yàlla la façon moo tax mu dëgër lool fecc ko itam du yomb ndax lépp loo xam ne Cheikh Ahmad Tidiane nee na lépp loo xam ne yàlla la mu ne loolu dafay sax te dafay loo mu ne lépp loo xam ne itam lu dul yàlla la loolu dafay tas te dafay tàggaloo ànd boobu nag comme yàlla rek moo ko waraloon ci noonu la tàmbalee bàyyi moo ko toppal sax alquran lépp lu mu jàng ci xam-xam itam ci bàyyi la ko jàngee jàngeew jàngeewut ci beneen sëriñ waaw lépp lu mu jàng ci moom la ko jàngee kon mën ngaa wax ne ci fukki atam ak juróom sax ci la ànd ak moom ba li xew yëpp xew gannaaw gi ba faydu bi feeñ yàlla def ko mu nekk loxoom nekk bindkatam lépp lu bàyyi di wax moo koy bind lépp lu mu bind ba pare itam bugg nit ñi gis ko ci moom lay jaar moo koy joxe yàlla def ko daal muy ànd boo xam ne ànd yàlla la moo tax mu dëgëree noonu am na tukki moo xam ne bàyyi daf ko ebaloon mooy bi ñuy dox jamono coopérative bi ci kaw Kaolack bàyyi wadd xaleem la moom mu ma àndoon mook sëriñ moo ma nettali mu ne ma bàyyi Cheikh Satou Niang bu kër bu Taïba Niangeen bu fuñ demaan dëkk ñu demaan bala ñuy wax dafay wax ne lii bàyyi yoon ni sëriñ pour mu dox ko pour ngeen xam ne farata la ci bàyyi mooy bàyyi bu nangoo sëriñ Aliou fanaan benn gudd fenn fu dul Medina ndax fii ba sëriñ Aliou di delloo dootuñ tontu leetar dootuñ joxe mbóot dootuñ joxe lijaasa dootuñ awi taalibe bu ñibbi lépp taxaw na booba muy dem waaw taxawaay boobu moom la taxawoon ci wetu bàyyi te sellal ko lool te duur loo xam ne ñu ñoo ko may waaye bàyyi moo ko bind façon yi melo wu nekk rek melal na ko ko ci lettre yi lépp lu ñuy gërëm gërëmee ni itam wax na ko ko ay ki nga xam ne moom laa gërëm ci sama bopp moom laa gërëm ci sama mbokk moom laa gërëm ci samay doom moom laa gërëm ci sama mbir lépp yàlla na ko yàlla fay tuddee na ko loolu ci ay lettre da nga gis mu ne sa soppe bi nga xam ne du ut mukk ku la remplacer ndax mënta am dem na sax ba di ko tuddee ilaa xalati cheikh Medina ne sëriñu Medina te boobu moom mu ngi fii moom Baye dem na ba ne ko xaamilu sirri cheikh fi Medina maanaam ki nga xam ne mooy enu mbooti Cheikh Tidiane ci Medina am la boo xam ne dëggu gi dépare moo tax loolu ci juddoo yëpp juddoo ci da ngay dem ba gis ne ni ñuy waxante ak ni ñuy defante sax nit koo xam ne dafa denc sa doom du ngeen mën a jegeyante noonu waaye nag yàlla moo ëpp loolu doole bi yëf yi nekkee yàlla moo tax loolu mujj na bokk ci dina goronteeg moom mu may ko taawam bu jigéen loo xam ne kayit yi mu ko ko mayee yëpp mu ngi fii ci ñun lam ko wax ci moom la yaakaar ci seen diggante yëpp kayit yi mu ngi fi waaw mu nekk euh, diggante boo xam ne bu nekkoon fii ba déwén itam di ci wax du jeex mukk waaw ndax li ci nekk ci ay njëriñ bëri na lool li ci jëriñu itam ci ay mbindeef bëri na lool ñu yàlla yàlla yokk seen leer te yàlla te bu ñu ñu itam seen barke da lépp loo xam ne moom lañ bugg a taxawal boo feeñal seen barke ci loolu feeñal seen liggéey ci loolu waaye daal diggante la boo xam ne mën nañu wax ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu egg sant yàlla imaam sina xeex euh, diggante Sidi Adil ak Mawlana Cheikh al Islam ci diggante mooy jiitu faydu bi euh, gis naa it ne euh, ànd bi ñu ànd seen magante naka la gis naa ne Mawlana Cheikh al Islam moo ko mag lool waaw moom mu juddu juróom-benni at gannaaw loolu ndax mu ngi juddu mille neuf cent six waaw ah. waaw juróom-benni at moo nekk seen diggante waaw daanaka rek mooy lim dund gannaawam boo xoolee lim dund gannaaw bàyyi juróom-benni at ak ay weer daal dugg ci ati bàyyi daal di génn àddina moom itam at moomu am na ku ko ku mu daan àndal ñu ko wax bàyyi si fa ab mu ne dañoo ànd jëm farafeñe ci baabu sisir boobu baabu mooy ci banque bu foofu mu ne ci yoon wi sëriñ bi ne ko Cheikh Asatu dund bi jeex na mu ne ko sëriñ bi bul waxati loolu mu ne ko man passé naa suma dundi bàyyi ndax euh, tafsir altaan mi ko jur juróom fukki at ma passé ko loo bëgg waaw nekk leen rek mooy sampal leen kër te loolu sax bàyyi naa ko yàlla ah juróom benn at yooyu daal mu dund gannaaw bàyyi mooy seen diggante eh, gis nañu ne ci sant ci Sénégal bi nga gisee Mawlana Cheikh Al Islam mu ngi nekk si Kaolack eh, Sidi Ali moom ci wàlli ci si ci si la eh, jamono boobu nag gis nañu ne kër Hadj Abdoulaye Niass al Kabir nekk na kër diine bu rëy mm-hmm. waaye fekk it ci fi ci fi yëpp ñoom it wax dëgg yàgg nañu ci islam. Mhm. mu mel ni yàlla daal moo boole seen diggante. boo ko seetloo. Mhm. Euh, wax yal ki ci jamono boobu xam naa ne. ndax lislaam wala xaaja balaa ñes moom daan na dem Joosam. Mhm. waaw naka la loolu demee. maam sëriñ Aliou bu ma tudd sànq muy Samba Thiané bi jur yaayam moom bi El Hadj Abdoulaye Niass ñëwee ci réew mi xam nga ñoom Jolof lañ moom moo doon wër nit ñi di wax ne xéewal bi ñëw ci réew mi moo doon wër di wax ne mi ñi te bi muy dem di jox El boppam moom ci boppam mbooloo mi nekk ci gannaaw moo ëpp li nekk ci gannaaw El Hadj Abdoulaye muy moom moom mu jur yaayam moom moo jàngal sëriñ bi alxuraan ba mu tari moo ko doon wax ne ko Aliou rey naa suma ba mokkal loolu alxuraan waaye ëllëg si biir mu ne ko loolu du ma ko def mu ne ko dañ ko def maa ngi lay gis sa diggante moom kenn jaaru fi te ki ma lay wax borom jëmm la borom daraja la waaw ah, Samba Thiané moomu wax nañ ne moom moo doon wër di utal Maam El Hadj Abdoulaye nit ñi ci Saloum waaw ndax ñoom même kër Samba googu mu demoon sax nga xam ne tudd nga ko sànq bàyyi moom mujj a juddu ci doom yi ci Taïba Niassène waaye gannaaw bàyyi ñëpp daanaka kër Samba lañ juddoo kër Samba googu sax ñoom ñoo leen fa dalaloon waaw ah. ñoom ñoo fa dalaloon El Hadj Abdoulaye waaw ah. nga xam ne bon diggante bu ba pare itam maam Alsaan mi nga xam ne moo jur sidaal yi ijaaza bi mu am ci tariqa bi maam laaj Abdoulaye moo ko jox moom moo ko sàmba caani moomu yëpp ay fi yoo xam ne mu ngi dox seen diggante ba ndox moo xam ne sax jëlee nañ ko faat sax daf leen di bind leetar maa ngi leen di yónnee seen wàll ci li ma am am naa ndox mu jóge ci taawe Cheikh Tidiane ci teen Cheikh Tidiane waaw diggante la bu yàgg waaw faydu bi dafa ñëw nag nekk mbir yàlla moo xam ne moo ëpp loolu yëpp doole waaw waaw ndax yéen bàyyi moom mbir yàlla rek la waaw moo tax bi mu feeñee daanaka nasaxal na mbooleem li ko jiitu woon li ko ñu bëri tàggee moom Baye Alaaji Mor Sène bu magam ne na mbooleem li nga xam ne moom la sëriñ si amoon di ko jokkalante bi mu ñëwee moom Baye yàlla nasax na loolu maanaam folli na ko maa maanaam Tijaani Ousmane benn muqaddam la ci kan wax na ne ci Baye ci la yàlla follee li fi nekkoon te moom indi na loo xam ne boobu ba àddina jeexee dara du ko mën a folli fekk yàlla ngi def yàlla kenn mën a folli loolu moom bàyyi moom ci boppam mu ne xadamtu lazi kat asasuhu inna ni bi sirri muqafara yuhaddu binaa yi ne na li wali tabaxoon bu njëkk toj naa ko te man nag lii ma tabax ci mbootam yonent yàlla Muhammad kenn du toj waaw moo tax bi loolu ñëwee dafa na sa xal mboolem lu ko jiitoon gënaa ci tabax xajab euh, dalaa ñëpp al kabir am lu wax na dane di ngeen gëm suma ban yeetu mm-hmm. loolu mu ngi bàyyi ko woon jooson mm-hmm. li ñëw li ñu bis kon ñu ne wëram wala tukkeem liggéey bu mu doon def ci diini mujj dem. foofu la mujj dem foofu la mujj dem. ndax gannaaw bu mu ñibbisee ndax. ci weeru korite googu nga xam ne daf ne buñ naanee dem jaala ji ci shawal ci weer woowu ci la gën a àddina moom itam waaw ah. muy bisi àllarba waaw ah. ba talaata ji dellu si yaakaar naa ci la Sidi Haj Malik moom itam gën a àddina moo tax naari gànnaar bi doon woy kenn dem ñoom ñaar daf ne shamsun wa shamsun ama shamsin raabata fa bakal waraali takaas fil azlaami mu ne jant ak jant xam nga at miñ génnee àddina ci gàddaay junne ak ñett téeméer ak ñeent fukk boo seetee yi rek shams la tolloot li jant di joxe junne ak ñett téeméer ak ñeent at moomu ñoom ñaar ci lañ gën a bi muy wax ci seen génn àddina mu ne jant ak jant ci atam jant ci lañ fàddoo waaw ah. mu ne mbindeef yëpp daal di jooy ndax lëndëm kat na wër nit ñi fu nekk ci seen dem ñoom ñaar al mu njëkk léegi jamono ji leen tàng dafa wuute hmm. eh, sama jur eh, Sidi Aliou gis nga mbindam hmm. xam nga njàngam hmm. eh, ngeen ko mën a tollale ak yéen wala loo gisee njàngam waaw ñoom seen njàng liñ jàng dafa wér-wér boo xam ne daanaka mën nga wax ne jamono bu nekk rek liñ bind ñoom mën na liggéey ci jamono bu nekk moo tax nit daf daan gis seen bind sax jamono bi ñu nekkee keer da nga koy wan nit mu ne ndax kii ndax azar ndax azar la génnee waaw moom ci boppam sax ñëw na keer jógee umra mu ne ma man damaa toog ci xaram bi benn nit bu doon waxtaan ak man li man laa naan ma ndax azar nga jàng ma a ko man xamu fi azar waaw ah. ndax ah, li nga xam ne moom lañ doon jàngale fii dafa wér-wér boo xam ne même ñi ko jàngoon fii dañ demee biti ñoo jiitu ñi nga xam ne jànguñ ko woon fii man bi ma demee Caire soixante-treize ñoo dem ma dugg def brevet fayal téléphone bi mu dem ma dem def brevet yàlla def ma jiitu ci école ba lépp ma bind bàyyi lees te bàyyi man la mujj jàngal ci kaw suuf ah. waaw waaw muy soixante treize maa doon jàngee ci sama fii soixante dix soixante onze soixante douze ba soixante treize mu am benn doomi maam Alaaji Abdoulaye bu génn àddina mu koy miraas fële ci ñeseen man ma dox nii rek ba gis oto yi gaare foofu ci buntu a ma dem dugg fekk ko ci saal bu mag nii moo kilifa waa mit ni yëpp ñëpp ngi foofu kooku doomi Alaaji Abdoulaye bu ñuy wax ngàjje la dafa génnoon àddina te amul doom waaye di ko miraas boobu Serigne Mbaye mu bi ñu egsee ci daa ji ñu doon bindee mu ne ma eh Cheikh jëndal ne ko man awma ma jël mu fayal ma septembre ci jamono boobu téeméer ngeen fa ku jëndal ma daa ji ñu yëkkati benn téere mbindi alaaji Moodu Zeynab wala magam ci làkk arab ñu koy wax chan franc bi mu jënd ne ma am téere bi téye ko suñ demee Medina na nga ñëw nga jàngal la ko ñu ma dem ci moom mu dalal ma téere boobu téere boobu jeex mu ma beneen téere bu daan dem ñeseen wala coopérative de ay ji sax dafa may wax ne topp ma waaw fu mu dem rek dafa wax ne topp ma bu ma mu jàngal ma ma dellu mu jàngal ci àddina su ma gannaaw jàngalaatu beneen nit waaw bi ma demee ker ma bind ko lettre ne ko def nañu examen maa jiitu mu tontu ma wane nu mu kontaanee ci loolu ñaanal ma yàlla mais na ngeen góorgóorlu ba bu ngeen dellu see ngeen indi ngeen indi loo xam ne amu fi waaw ah. xat moomu mu dem faju ji Paris imaam fekk ko fa jógee Angleterre mu ne ko ndax cheikh bind na la imaam ne ko déedéet mu ne ko ma ne bind na ma wax ne moo jiitu ci examen bi xale yi war ñoo xam ne am yóbbal bala ngaa dem baax na ci na bàyyi ko wax loolu ne ko lim am bi muy jógee fii bu ko amutoon su demee du mën foofu ci atam mu njëkk waaw nga gis bon seen mu dëgër même buñ daan def examen sax maanaam ñu laaj la dara ci nga tari loo xam ne ñoom ñoo ko wax bàyyi moo ko woy wala moo ko bind dañuy yéemu ci yàlla di wax ne la foog nga bindal ma ko foog nga sottil ma ko bàyyee ma ko ndax wax ji rafet bi mu rafet waaw ah. moo tax ñoom seen bind ak seen xam-xam lépp mën na dox ci jamono bu nekk te ba léegi nii mënoo wax ne lii baaxul nañ ko dindi seen wax déedéet man ta ma waxtaan ak moom la ñu seexal islam ba mu invitation yu ba foofa. mu mhm. euh, nekk kër mhm. ba mu waxee buur ba ne ko xanaa yow. la sax nga jàngee. Mhm. waaw <laughs> waaw yooyu wax nañ ko waaw <laughs> wax euh, euh, ak. Nigéria ndax mën nga ñu seen nettali dara naka la ñëwee. waaw Nigéria. Euh, buur bi ñëw wax Abdoulaye Bayero. mi nga xam ne moo jur kii fi nekk nii tey. moo nekk na la ci photo bale Ado. Ado mu nga ne la ci suñu diggante ma ak imam. baayam moo ko jur moo jur Sanusi ak yeneen i doomam. 1937 euh, bi bàyyi di aji. dafa fekk moom itam. yaakaar naa mooy buur bu njëkk a jógee kanu dem aji mag. Hmm. fekkoon na mu nekk sax tijaan. waaye am na ay soxla yoo xam ne. doon na ko ñaan yàlla. lu aju ci nguuram ak su fi jógee doomam Mouhamed Sanusi wutu ko ak tase ki nga xam ne mooy xalifa Cheikh yaan ci waxtu wi eesu ci moom moo tax ñoom ñaar biñ tasee ci Madina ci jàkkaarloo yonent bi daf ko wax ne yow la rek bàyyi na ko man la foofu lañ foofu lañ gisante ndax yow ndax ki ma séddeew la mu ne ko man la waaw waaw waaw wax nañu man ñeent fukki yoo xam ne ba mu eesuloo ci bàyyi ñoom ñëpp dañoo eesu jàpp ci bàyyi loolu mooy bunt yi dem Nigeria am waaye loolu mi ngi nekkoon 37 ba 1945 ci jeexul guerre bi ay jógee fii moom benn fan um kenn rek are Banjul xanaa da ngeen gis photo bi foofu ci Banjul sax mu ngi toog ci aéroport bi noonu moo am na ñum toogal xaw ma ñan la boobu mu fanweer at ak juróom-ñaar la am lu ñeen fukki at ak juróom kon ndax quarante cinq la waaw xam demee yóbbaale na Kaashiful Albaas bi nga xam ne moom moo ko bind Mumbai wax ci affaire yi faygu yi wax ci affaire tariqa bi wax ci mbiri tarbiya wax ci sëriñ wax ci tariqa bi itam xam ko de ba mu demee séddale ko jox ko borom xam-xam yi foofu déedéet moom kenn rek mu ànd wax nañ ne sax magam alaaji mu seena bu doon na ko wax ne bul dugg ci weñ guy naaw waaw ñu ne toog naag moom guddi la mu di ko wax pour bu ci dugg bu bàyyi de départ mu ne xamoon nañ ne ci weñ guy naaw lañ koy mujj gisee waaye gis nga wax yi wala daanaka bàyyi ci avion lañ ko nit ñi mujj gisee fii mu dem ah. waaw dem ñi nga xam ne ay kilifa lañ foofu xam ne jàngoon nañ xam-xami zahir jàngoon nañ itam xam-xami tasawuf xamoon nañ li sufiyaan yi daan wax diñ jàngee téere bi ñu gis ne wax ji daal ki koy wax ne mu ci kaw suuf ki daal ñun fu mën a nekk danañ ko fekk muy kooku muy Sani Kaafanka ak Malam Tidiane Ousmane ñuy ñaar ñi nga xam ne ba fa bàyyi jógee ñoo ko njëkk a topp ñëw Medina ak bàyyi Sani awal ñëwee ñoom def fi tarbiya di jaaza leen ñu dellu ci yoon wi dëkk bu ñu romb rek danañu wax waa dëkk ba ne ndax yëg ngeen ne yàlla matal ci jamono ji feeñ na Sénégal ci dëkk bu ñuy wax kaw Kaolack njaaree gaana wax nañ ko ba nga xam ne ñooñu danañ fuuglu wax jooju topp ko bu ñëwee ba dellu loolu mooy bunti Nigeria ubbeeku waaye ubbeeku bi dëgg dëgg dëgg nag mu ngi am ci ajam boobu nga xam ne cinquante deux la nga xam ne woy na ko mu ngi ci rexla xijaaziyam boobu ci la ñëpp nag ñëwee jëbal ko seen bopp quarante cinq boobu am na benn muqaddam bu ma nettali ci Gaana mu ne avion bi ko jëlee Banjul dafa taxaw Accra ñu war fa fanaan pour continuer dem Lagos ci ëllëg mu ne ma am na benn buur boo xam ne ci buur yi zongo yi bu avion fanaanaan Accra dafa yóbbu ay marchandise seet gan ñi di leen ko jaay moom mu dugg ci benn hôtel fekk bàyyi ñu ngi ko fanaanal ci hôtel boobu waaye wàcc na ci suuf toog teekurusam mu ne buur zongo boobu ba mu duggee rek seen ko rek yuuxu laa ilaha illallah ci la ci ban façon nii ci ban nii la di lox di lox ba daanu ci ba daanu ci ba marchandise bi moo ko doon dajale ko delloo ci saag ne ko yow xanaa yonantu yow xanaa yow lu ne rek mu laaj sago sagom yow daal boo duur yàlla yaa yonantu mu ne moom nettali na waa zongo yi ne moom bàyyi wax naa moom awsa te boobu bàyyi gisagul awsa yi waaw mu ne na ko na ko xëy muslim yi ne ndax yow jullit nga mu wax naa moom awsa ba mu delloo zongo mu ne gis naa ko xam ne wallahi bu duul yàlla moo yonantu waaye yoon woowu moom bàyyi daf faromboon rek ndax gaana mu ngi fa dugg cinquante bii nii mooy yooni commencé bi njëkk bi nga xam ne ci la daanaka moom itam ci la gaana mokkee ci lépp ñëpp waaye boobu dafa romboon jëm ci tukki moom mu jëmoon Canada waaye moom daal digganteem ak Nigeria ubbeekoo ba tey rek da nga ci gis ne Cheikh Ahmed Tidiane wax rek loo xam ne yàlla la rek dafay continuer dafay jokkaloo ba tey ñuy wax ay juróom-ñaar fukki million ay juróom-ñetti fukki million ci ay taalibe euh, loolu bu duutoon yàlla du mën a am waaw euh, imam nigérian xam nga la mu fa def ak mbooloo ma ko topp te kon dafa ay kilifa hmm. ñàkk ñu ko fiire xam nga loolu yàgg na ci mhm. ñi nga xam ne comme këri nguur yi comme lu mel ni Mahamadou Bello moom ñu wax Sardana Mahamadou Bello moom xaritoon nag sa Fall gannaaw gi mu noonu ko waaw mu taalibe yi sama taalibe yi lool ci seen njëlbeen da nga gis ci photo aji imaam ne na ma soixante-deux bi mu ànd ak sax mu ne ak Sardana ci benn tànk lañ nekkoon waaye gannaaw gi am na loo xam ne nit ku bugg àddina du ko mën a na waaw ndax nit ku bugg yàlla doo gis nit yàlla di ko fiire am na loo xam ne bugg àddina rek bu ko waral waaw gis ne rek yow nguur gi nga nekkee lii dana ko daani waaw Abdoulaye Jànq Abdoulaye Jànq mii nekkoon ci Banjul mu ne Baye Cheikh Omar Touré wax ne ko man de seet naa seet seet seet seet bi daal bu ko nit war a bañee daal gisuma ko mu ko waaw ah, danaa la wax li ñu ko bañ ne ko sëriñ si daf leen a fekkoon ñu soppee ko ay buur suñu ñëwee folli leen waaw gis ne kii dana ko di loolu lañ ko bañee waaye bañeewuñ ko xam-xam bu manqué bañ wuñ ko baax bañ wuñ ko taar ndax lépp lu ñu war a bëggee ni rek mu ci moom. Euh, Mawlana Cheikh al Islam kan nag moom su bàyyee ko sa waajur si Aliou Cissé taxaat na loolu wala ni Cheikh al Islam mënoon moom ah ci dundam sax ndax baay bi mu demee ba nga xam ne dematul maanaam moom la doon ebal. mu dem di doxi affaire jumaa ji mooy dem di feesal yi nga xam ne moo nekk ci diggante ak taalibe yi bind na ko ay lettre ci loolu bind na ne laqad tawajjaha naxwakum amini alaamu alaarifu billahi alxaaris xalifatu cheikh alxatmi tijaani bila nizaain wala shiqaaq wa huwa sayidi alin sisi om ziyaratuhu taqumu maqama ziyarati arju nafaa bihi fa huwa mahallu nazarillahi taala wuffiqtum liqtinami alfursa wasalaam amin wasalaam ibrahima ñas nee na nit a ngi jublu si ci yéen koo xam ne mooy ki ma gën a wóolu ci ma óolu ci lépp nga xam ne xamaa xamaakoon yàlla boo xam ne tànk na itam lu bëri ci xam-xam yàlla te xalifa Cheikh Ahmad Tidiane la ci lu dul xëccoo ci lu dul werante kooku mooy kan mu ne mooy say Aliou Cissé mu ne ziyaaraam nag mu ngi taxaw placé suma ziyaara man moom mu ñëw mu ngi mel ni man maa ñëw waaw maalam Tidiane Ousmane mi nga xam ne borom xam-xam la bu mag ba muy firi wax jooju def ne ñaari maana mu ne moom mu ñëw mel na ni man maa ñëw ziara si la wala yéen ñeen ñëw ziara si ko mu ngi mel ni si man man ngeen ziara si ba tey mu ne moo tax baati ziara tu boobu ñaari maanaa la taxawee ne maa ngi yaakaar ngeen jëriñu ci moom ndax moom mooy place bi ñuy gisee yàlla fi nekk place bi ñuy gisee yàlla nag su fi anke yi buñ ko waxee rek xót bu lañ ci jublu waaye waxal na ko loolu ci lettre boobu mais maa ngi ñaan yàlla lii occasion la boo xam ne yàlla bu bi bàyyi di dem London bu mu ko fekk Nigeria bàyyi xaar na ko fi fekk soxla ko ci boori Ibadan ba far bàyyi dem Angleterre mu ñibi si gannaaw bàyyi yàlla def li mu def Mawlana Cheikh al Islam tax na wóor na eh, ajima sax tamit tax na hmm. yow nag dama xamul ndax sax nga yéene topp seen tànk eh, waaw dox moom xëy na ñu ngi ci yoon sax ndax fanweeri at yëpp loolu lañ ne lépp lu ñu gis ne rek lu yokk mbir mi la jaral nañu ñu dem toog daal waxtu amee rek dañoo gis ne toog moo gën waaye bu ko dem gënee rek ñu dem bu fekkee ne yokkute nekk na ci ci wàllu zahir wala ci wàllu batin ndax euh, ay bi muy dem Conakry neuf cent quarante six dafa wax ne xam liman fi zikri yi qul siiru la ardi man sara lahu bashiru ba sant yàlla ne yàlla mi wax ne dox leen ci kaw suuf maa ngi koy sant ma te ku dox ci kaw suuf rek da nga taseet lu lay bégal wax na ca biir ne xamul sax lam adri mujiba siyaxati lati qaharanil mawla laha wa illati mu ne li waral tukki mi sax mu ne xamu ko mu ne yàlla moo ko noot rek jógloo ko mu jóg waaw loolu dara lu may pour gis ne rek su jógee dana juble ndax koo xam ne ne nga benn nit rek bala owoon Amérique boo xam ne boo demee mu dugg si islam jaral dem waaw kon foo xam ne mën nga faa jublee ay junne junne junne junne su boobaa dem moo gën ci yow soo seetloo ci tukki gaana mii nii wax nañ ne ci yéen bi ñeenti junne nit waxandoo nañ baat seede bi ñu bàyyi demee foofu ci benn jotaay te loolu la tubaab yi bind te tubaab yi suñ bindee loolu rek mooy ëpp na ko bàyyi moom dafa wax ne fa qultu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu ilahu fa qaalaha alkuffaaru walmajuusu walulama fa sabati laqantu alafan lan tuadda kalimata tawxidi faaqul hadda moom dafa wax ne dama waxee laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñëpp a ko waxandoo mu ne xéefar yeeg jaamukati xërëm yeeg buur yeeg ñëpp a ko waxandoo mu ne baatu seede boobu waxloo naa ko ay nit ay junne yoo xam ne mu ne kenn mënu leen a compte moom dafa wax ne kenn mënu leen a compte ay junne yoo xam ne kenn mënu leen a compte waaw kon nga xam ne moom ñëlee bind ñeenti junne sax kon ëpp na loolu te ci tukki moomu nga ci la waxe woon ne bu taxutoon affaire yi njaboot gi nekk Sénégal kon dootuma dellu Sénégal waaye waaw mm-hmm. ku ñu nag du ñu denc ndax suñu alim li mu bind teg yooyu yeneen ngi fii yëpp a ngi fii te moom bàyyi lu ndaw ak lu mag moo am ci moom lépp daf ko daan bind rek lépp daf ko daan bind amul daal loo xam ne mën ngaa wax ne lii waxut seen moom lépp rek daf ko daan bind yónnee ko te yooyu yëpp nag ak leetar yooyu mu ngi fii te wali yu dañoo wax ne wóli yi seen mboor dëgg-dëgg seen lettre yi la nekk moo tax foog ñu garde ko bu baax a baax ndax nit ñi mën ko jëriñoo ñu ci am ay eene tam yoo xam ne lépp loo ci xam ne nit ñi jotuñ ci tam nekk loo xam ne bu war a génn la nit ñi jëriñoo ko rek ñu génne ko incha allah ndax maa ngi imaam ci loolu lañ mujj a wax mu ne ma lettre yi nekk diggante bàyyi sama bare nañ fexe ba liggéey liggéey ci ko génne loolu am na solo waaye gis nañu ne Hadj Abdoulaye Kabir moo euh, mu bàyyi gannaaw déedéet moom bàyyi ko bàyyi ko ëpp benn at sax ndax moom xam nga moom fanam ñu ngi koy seet ci hijra bi gàddaay yonent bi ndax ci gàddaay yonent bi Hadj mu ngi juddu charrun subda noonu lañ koy taarixale xay dëddu na boo ko xisaabee mu jox la at nii Alaaji Abdoulaye it judd mu tolloog junne ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent mooy bis bi bët di génne àddina ci Mauritanie bët di moo nekkoon xalifa Cheikh Mahamadul Hafiz mu indoon tariqa bis bi mu génne àddina keroog Alaaji junne ak ñaar téeméer juróom-benn fukk ak ñeent àddina junne ak ñetti téeméer ak ñeent fukk nga gis ne dund na juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn ci gàddaay yonent waaye bàyyi boo xoolee fi mu juddoo ci gàddaay bi ak fi mu génne àddina moom dund na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar magee na ko benn at alaaji xalifa ñes moom dund na dund Cheikh Ahmad Tidiane juróom-ñaar fukki at la dund waaw rakkam Cheikh Omar dund na juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar moom itam waaw ñi ci des daal xëy na ay mahmoud ak waaye xaa dégg dund ay juróom-benn fukki ak ñett waaye ñëlee jot am nañu mas a bind leetar wax leen ne yàlla xamal na ko ne dana dund lu ëpp du di bàyyam yàlla mënu ko fee jëlee ci jamono boobu tax benn at nañ la ko ëppee waaye dam nga rek nit ñu weex ñi a la mm-hmm. faydu sax te bokkal ñun pas-pas ci tariqa mën nañ cee wax ndax alquran dafa wax ne iz lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadimun ne ñenn ci nit ñi lu leen yàlla joxul njub njubam dañ naan seen la maanaam lu ñu xamul rek te commencé wut ci faydu bi ndax ña waxoon ne gis am na ñu ba dañoo taxaw. ne leen du dëgg. bàyyi nag mu ne. ku ko wéddi rek yow xamal nga nit ñi ne yow mosoo ko gis mu ne ku gis yow weer nga sa bopp xamal nga nit ñi gis mu ne te boo noppi woon xëy na <laughs> ne mos ko gis mu ne ku ko wéddi rek yow xamal nga nit ñi gis waaw ndax te ñoom imaamu Suyuti ñi nga xam ne ñoo jut ci Ahmad Tijaan imaamu fan wa sëb na la gis mu ne juróom-ñaar fukki yoon nangam gis na ko yonent bi waaw gis nga njëkk ci Ahmad haadihi nawbatu al ashrax qad xadarat famdud yaminaka kay taxdaa biha shafati dafa taxaw ci buntu xabru yonent ne dama daan ba ma nekkee Irak di la ziyaara dama daan yónni sama rox muy ñëw di ma uutu fi mu ne nag moo ñëw bi yoon waaye génneel sa loxo bi rek loxo yonent bi génn mu teg ci loxom ah mu teg ci loxom teg ci tuñam ah hmm? kon loolu yëpp daf doon dëggal fii bu ëllëgee bu Cheikh Ahmad Tidiane waxee ne gis naa yonent mu jox ma tariq kenn ko kenn du ci dafa am benn muqaddami bàyyi bu mag Mouhamadul Misri Misri lañ ko soxla waxtu bi ne ko fi mu ne nag àddina bi egg na foo xam ne nit ñi ku neex nga taxaw ci mbedd bi wax lu la neex kon ku wax ne maa yàlla itam kenn du la def dara ne ko waxtoo muy xor a jot ah ne ko bu njëkk nag foo ko waxaan rek jàpp la fi mu ne nag nit ñaa ngi wax lu ëpp loolu ndax nit ñaa ngi taxaw di wax lu leen neex xam nga tubaab yi mënuñ la aay dara ndax ñoom ñu ngi wax lu leen neex di def lu leen neex waaw ah, ah. waaw dañoo biñ nekkee kër nekk étudiant benn étudiant boo xam ne daf daan contrôle rek affaire tariqa bi ñu am benn ngénte ma man tey sama procédure sama ne yéen bàyyi leen affaire procédure ma ne ko yow de ci tooñ nga nekk gis nga cigarette bii ngay toox nii moo bon suma gi ndax suma gi deful la te yow lii ngay toox mu ngi may lor te maa ngi ko muñ kon gi comme maa ngi sa bos sa sa bos sax dafay lor te bii lor ko muñ comme yow muñal sa bos waaye kooku yàlla dafa feeñal karaama ci moom benn bis dafa nekk Dakar di wax Cheikh Ahmed Tidiane di wax Cheikh Ahmed Tidiane am benn nit xaar rek na ko billahi yow digg bëccëg ngay dee sa bopp bi dafay xaar waaye nett li ma loolu ne ma diw su ma bàyyi lañ ko tuddee waaye wax na ay wax Cheikh Ahmed Tidiane yi man gëñal naa ko ne dana dee digg bëccëg te buy dee boppam bi dafay xaar kooku keroog bi muy dee man jëm ñaajo la dama see feeg nii damaa jógee Dakar ñëw rek fekk accident bu la neexee ku nga dëggal ku bu la neexee tam nga jébal leen seen wax ne man di xaw ma force la pour nga dugg ci ah looloo tax kon li ñuy contre du commencé ci faydu bi yàgg na man ngaa wax ci yonent bi la sa ay mbokkam ñoo bañ ñoo ñoo bañ ba mu dem Madina loolu laa wax ci jamono bi imam demee ma ne leen moom nekk na limaan fi ñaar ñaar fukki at pare mu ngi dem ci dund yonent bi juróom benn fukki at ak ñett ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi nee na yonentam at la ko doxal nga xam ne ñeen fukki at la ñett màkka ay mbokkam di bañ mu am juróom fukki at ak ñett door a gàddaay dem Medina fukki at yi def Medina lim doxal lépp ci fukki at yooyu la ko doxal moo tax ma ne leen dama doon wax ne ci bunt yi ne buñ xoolee rek danañ sant yàlla ci anam ko loolu tax moom ñi contre moom yàlla moom toujours rek ñaari mu askar ñoo fi nekk mu askar li rahman ak mu askar li cheytaan ñi taxawee yàlla foog mu am rek ñu taxawee leneen ñu ngi jéem xeex ak ñoom waaye li nga xamee itam moom la yàlla dalee mooy ne baatu ci suuf la jëm te dëgg ci kaw la jëm euh, yéena cheikh ñu ngi laa gërëm wi yàgg na waaye euh, dama cheikh al islam waxoon ñu nekk ci néeg ba waxtaan daan wa yàgg na ñu sëwanu ni rek ci lal mu gis ñax waa nga koo dog ne ma ne ko demal ñax <laughs> ne ko waxtaan wi yàgg ñax nga baal ñax mu ne benn àq nekku la mm-hmm. euh, ñu def maa ngi tan seen Cheikh ñu la mm-hmm. euh, bi mm-hmm. euh, ak itam temps ngi la laaj luy dénku naka mbokk yi rawatina yi ci yaa nga fa nag xam naa ne di nga saafante ci loolu nga joxe yëbbante bu jëm ci talligo yi su may ba ne Sénégal bi yëpp waaw loolu tam ñu ngi santaat rek leen ndokkeelaat beneen yoon pare di leen dénk li nga xam ne moom la ñuy dénk suñu bopp rek mooy dëgg yi ñu nekk nañ ci téye ndax lu ko fete kaw amul euh, nit ki dañu wax yonent bi foo wax ne mbiri xeetam toon mbiri xeet yu démb rek mooy defar mbiri xeet yu tey maanaam ñu fi jógee liñ bàyyi ñu jàpp ci loolu te bañ ko sàggane ci benn anam ndax euh, njub yëpp ci loolu la nekk njëriñ lépp tam ci loolu la nekk Baay radiyallahu na dafa wax ne xam-xam jëlee ko ci sëriñ moo gën a wóor jëlee ko ci téere mu ne téere mën na bind lu wér mën na bind lu wérut te su boobaa yow miy jël lépp ngay jël mu ne sëriñ nag li mu amee li ci wér la lay jox li ci wéru daf koy téye kon li nga xam ne ñoom joxe nañ ko mu nekk lu wér ñu bàyyi ko fi ñu ngi ñaan yàlla mu dimbale ñu bañ man koo jàpp-jàpp bu wér xam ne du yàqoo mukk ci suñu loxo daf ciy doole ko waaye du ci yàqoo ndax moom ñoom li ñu war def yëpp def nañ ko li ñu a tabax yëpp tabax nañ ko ku góorgóorlu ba mën ca yokk dara baax na ku góorgóorlu itam ba mën a wëttu liñ fi bàyyi woon te yokk ko ci dara ba tey baax na mooy saxaaba yonent bi rek buñ góorgóorloo ku ci góorgóorlu ba jubal wala ba tafen njub ñaari yool ngay am ku ci juum sax da nga am yool yooli ijtihaad bi da ko am moo tax ñoom boo toppee seen kaw rek mucc nga mooy moo tax ñu naan man xalada aliman laqiya allah saliman kon taalibe yi ci Gambie ak Sénégal yëpp loolu rek mooy li leen laaye be di ko laaye bi suñu bopp mooy ne nañ jàpp ci li ñu amee nii lu wér na te lu koy folli nekku fi ndax dëgg ak dëgg duñu xeex dëgg waxtu boo gisee am lu taxaw di xeex ak moom loolu baatil la waaye du dëgg dëgg duñu xeex moo tax nañ ci jàpp te yàlla diggéen a ndimbalam diggéen a itam ndimbal lu mu war a dimbala diine islam Baay wax na ne walladi arsala rasulahu yàlla ne walladi arsala rasulahu bil huda wa diinil xaq li yuzhirahu ala diini kullihi ne yàlla moo ebal yonent bi jox ku njub ak diine dëgg loolu ñëpp xam nañ ko fi mu nekk nii mu ne mu def nag lii yàlla dikkee ne te dana ko feeñal ci kaw diine lépp ba dootuñ gisati benn dina ci kaw suuf te mu ne ba foofu mu ku yàlla may nga jàpp ci loolu rek jàpp ci booba nga tas ak ñoom nan nañu yàlla defal loolu gannaaw dund yu gudd yàlla xool ñu ba ci ngërëm jëf yi lu mu néew néew su ko yàlla gërëmee rek mu jëriñ lu mu bëri bëri su ko yàlla gërëmul amul lu njëriñ am na benn nit boo xam ne dañ ko gis ci àllaaxira mu génn àddina yàlla ne ko mu ne aj naa ñeen fukki at a ngi nii may aj yàlla ne ko nanguma ci benn a ngi nii may ko nanguma ci benn lu mu wax rek yàlla ne ko nanguma ci mu ne bon man alak na yàlla ne ko déedéet du ma la alak ndax benn xaj loo mës a defal benn xaj loolu laa lay baale tey dafa mës a mar dugg ci benn teen naan bi mu génnee gis xaj bu mar ba teg diiram tëdd ci suuf mën a tëy ndax ma mu ne bi mu génnee mu gis xaj bi ne day sànn li ma daloon moo ko dal te mënul li ma mënoon xaaral ma dellu ci teen yi wutali ko ndox mu ne mu dellu ci teen bi gisul fenn fu mu ko defal ndox mu summi bot yi mu soloon sol ko ndox ba mu fees mu génn moom bi mu génnee jox xaj bi mu naan yàlla ne ko loolu laa la baale waaye du koor yu bëri yi yu bëri yi ndax gis ne def lu baax jarul xeet ci mbindeef mu mën a nekk rawatina sax ci doomu adama te li ma daloon moo ko dal te mënul li ma mënoon duut ci affaire yi naan ndox rek de bëri na waaw ah, maanaam lu li da war a dimbalee nit nit ku feebar sax nga fàttaliku ne yow feebaroon nga te la nga mënal sa feebar bi kii mënul ko boppam feebaram bi su nga koo taxawu ne kii li ma daloon moo ko dal te mënul li ma nit ku bugg a dem aji màkk te nga mën mën koo dimbale nga ko nga defal ko ko dafa nekk loo xam ne dafa diri sembaanam ci lu nekk rek waaw lépp loo xam ne rek nit ki mënu ko te yow nga mënal ko ko rek soo ko defee dana dugg ci buntu boobu te yàlla xam nga doomu adama yi léeg-léeg nga dégg ñooy diw amul njëriñ amul njëriñ yàlla ko gën a bañ ndax yàlla nee na xayru naasi anfaahum linnaas mu ne ki gën ci nit ñi yonentu be ko mu ne ki gën ci nit ñi mooy ki ëpp njëriñ ci nit ñi mu waxaat ci beneen xadis ne nit ñi njaboot yàlla lañ ki gënal yàlla ci ñoom mooy ki gën ci njaboot boobu moo tax li ñuy wax ne diw amul njëriñ du nit ñee ko wax de waaye yàlla ci boppam wax ji ci moom la commencé moom ci boppam soxlawut nit ko amul njëriñ waaw ah. te am njëriñ ak tabe ñu ne garab la loolu ci xadis la garab la bu sax ci aljanna ku ci jàpp doo ci doo daanu ba ba ngay egee nay ak ñàkk njëriñ itam garab gu sax fële safara ku ko melloo rek ñu ne ci ngay jàpp ba ba ngay demee fële waaw kon jaami yàlla yi yar nañoo bàyyi xel lool ci jëriñ leen ci lépp loo man boo demee ba mënoo leen a jëriñ itam nga fexe ba bul lor kenn tax nga nekk jullit bu mat waaw ndax dama ne li yonent bi wax ne jullit al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi man dama ko dégg-dégg bu ëpp loolu maanaam doo jullit ñi mu ci sa làmmiñ ak sa loxo waaye dama mooy ku am njëriñ ci làmmiñam am njëriñ ci loxo boobu mooy jullit bu mat a mat kële jullit la de waaye nag di gën a mat mooy koo xam ne waxuma mu lor la ci làmmiñam waaye daf la ciy jëriñ loxoom itam du la ci lor waaye daf la ciy jëriñ ku la jëriñ ci loxoom du la lor ci loxoom ku def ñuy julli dëgg-dëgg yal na yàlla def jàmm ci diggante ñaari réew yi yal yàlla wattu njiit yi yàlla wattu itam peuple yi ko dëkkee yal na yàlla ubbi fii bunti xam-xam te saxal ko fi ak wërsëg naataanga saxal ko fi te def barke itam ci suuf fi neel ñu njëriñam def barke ci jëmm yi def ko ci mbooleem yëngatu ak dal yi yëpp barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ndimbal ñeel diine islam daf dine islam muy suñu ndimbal salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf alimam Cheikh Alfayda FM sant bu baax ci alhamdulilah noo ngi julli ci seen amaa sallallahu alayhi wa sallam eh, di leen dalal jàmm ci programme bi nga xam ci kàttanu yàlla ci ngër ma de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass taala anhu muy ëttëb Mawlana Cheikh nga xam ne lépp na ci pays bi rek ñu ngi jéem a def pexe pour indi leen ko ci ak nu mën a demee nag gëm ne rek bëgg bàyyi ngeen bëgg a tax na ba loolu duñ ci am benn ñaari xel te itam euh, lépp luñ ci bëgg def rek yàlla dina koy yombal loolu nag xam naa seen ñaan la seen taxawaay yu rafet ñu ngi leen bu baax a baax ñu ngi nemmee ko ni ñu ko baaxul defee mbokk yi nga xam ne waxtu bi ñu ngi tawat ñu ngi ñaan yàlla mu delloo leen ngi leen di jaaree euh, ñu ngi jaale ñëpp gannaaw bu ñu ñaanee yàlla ñooñu jiitu yàlla euh, atleen ci mandem gannaaw loolu nag daañu leen ndokkeel beneen yoon ndax xam nañu fii kilifa gu mag kenn la ci pay baay dëgg-dëgg ñëpp dañ ko war ci jamono bii ndax ñëpp yëg nañu li nga xam ne mooy ay coppite yu am solo yoo xam ne coppite yu kawe la wax dëgg yàlla ñu ngi koy dund ci pays bi kooku moom mooy imaam Cheikh euh, Tidiane Aliou Cissé mi ngi ci réew mi euh, démb ñëw nit ki altine ñëw na ci réew moo xam ne bëgg nañ ko waaye ñëw na ci réew moo xam ne itam xam nañ ne bëgg na réew moomale ndax xam nañu euh, yëkkatiku koo xam ne am na ci digganteem ak taalibe yi nga xam ne ñu ngi fi sëriñ bi ñu ngi kontaan ci ñëw ànd ak yow ci waxtaan wi nga xam ne dafay jëm ci mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ñu ngi ànd ak nag sunu mbokk suñu walla Cheikh euh, Gassama nga xam ne moom itam kenn la ci pays bi di koo xam ne jàmbaar yàlla la ñu ñaan yàlla yàlla def ko ba yaram bi euh, Cheikh ñu ngi koy kontaane waxtu bu nekk sëriñ bi ñu ngi kontaan ci am la fi gannaaw bu ñu la nuyoo gannaaw bu ñu la dalalee jàmm ñu ngi euh, ñaan nga jokkoo ak mbokk yi nuyu leen salaamaaleykum wa rahmatullah Alfayda FM alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin afdalil anbiyaai wal mursalin وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi dëkk fii ci Gambia ci Sénégal ci fuñ mën a nekk ci àddina bi ñu déglu nuyoo bu sell mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi ndokkeel ñëpp itam ci xew-xewi ziyaara bi nga xam ne ci ne ci ajuma ji wéy muy ziyaara boo xam ne muqaddam yi ñoo ko sosoon di ko ziyaara cheikhul islam saadu salaam mawlana cheikh alhaji ibrahima Niass def at mu nekk boobu léegi nag xam nañ ne lu wér la te dëgg la te loolu lan moo ñu ko xamal cheikh ahmad wax ne maa kaana lillahi daama wattasal wa ma kaana li gayrillahi inqataa wan fasal Cheikh Tidiane radiallahu anhu dafa wax ne lépp loo xam ne yàlla moo tax mu ne loolu dafay sax dafay jokkaloo mu ne lépp loo xam ne itam yàlla taxul dafay dëñ te daf tasaaroo kii nag ziyaara bi nag bañ ko sosee ba léegi mës mësta dog kon xam nañ ne yàlla la fasu fasu bu wér bàyyi wax na ci benn ziyaara ne ñëw ngeen fi daaw fekku leen ma fi ngeen ñëw fi daaw jeeg fekku leen ma fi ngeen ñëwaat fi daawaat jeeg fekku leen ma kon bi ngeen ñëwee ren fekk yàlla mi ngeen fi doon fekk ci at yooyu jiitu moom ngeen fi fekkaat ren kon ziyaara bi ci yàlla la aju gannaaw loolu itam Mawlana Cheikh bi ñuy jëmam fàddu ak tey mu ngi jëm ci fanweeri at ak juróom benn te boobu ba léegi waxuma ne ziyaara bi toog na waaye at mu jot ziyaara bi dana yokk lañ doon ziyaara baay dana yokk ña doon ñëw di ko ziyaara si danañ yokk bañ si ren ñu egg foo xam ne liñ am luñ doon am ci daaw ak daaw jeeg mën nañoo wax ne am na ñettam nga xam ne bon nit ñi gën nañoo takkaayu seen cofeel ci bàyyi gën naa yokku seen mbëggeel ci moom itam wéral nañ ko aju giñ aju ci moom itam dëggal nañ ko kon ñu leen di yaakaaral barke bi nga xam ne moo war a tegu ci loolu ziyaare ji waliyu yàlla lu bari moo ci war a tegu kon barke boobu ñu leen ko yaakaaral yàlla na ko yàlla jox képp koo xam ne te képp ku ñëwoon rek ñëw nga ak aajo ñëw nga ak soxla ñëw nga ak bëgg-bëgg yàlla xam na ko yow xam nga ko yàlla la defal loolu ci barke baay mi nga xam ne mooy borom ziara bi te liñ jox yàlla na ko yàlla nangu ci lan ci yàlla def lu am solo la ndax ziara sa mbokk jullit rek dafa am solo ci lislaam ndax nit jóg na di ziara ji mbokkam benn malaaka dogoon na ko ci melaw nit ne ko foo jëm mu ne ko ci dëkk bii loo fay uti mu ne ko sama mbokk laa fay seeti mun ne ko ndax dafa am soxla boo fay defari mu ne ko déedéet dama koy ziyaara jërë ngir yàlla mu ne ko yàlla mu ne ma bëggal la ne baal na la say bàkkaar loolu rek jar na nit takkaayu dox réew ak réew ngir am mbaam yàlla ndax la utiwuñ dara lu ko ëpp ci àddina kon ñu ngi sant yàlla ci ziyaara bi wéy di ndokkeel képp koo xam ne itam yàlla defaloon na la tawfiq ba nga mën a teew ndax képp ku ci teew rek tawfiq yàlla la yàlla mooy maye ay mayam mm-hmm. mooy tànn itam ñu ngi koy may waaye mm-hmm. wax na ne tawfiq du lu yomb wax dafa jafe ba nga xam ne benn yoon la ko yàlla tudd ci alquran mooy ma tawfiq ya illaa billah mm-hmm. waaye ku ko yàlla may itam fépp fu ñuy jëriñoo wala ñu fay amee lu baax yàlla dana la ommatal boppam bu yóbbu la fa cheikh tidiane radiallahu anhu wax na ne saiqu saadati yasuqu li xadratihi unasan saarifu ilahi yasrif anha axarin ne na aji ommat texe ji ommat texe dana ommat ay nit jëmee leen ci pay boobu nga xam ne moo leen di taxeloo aw nit waaye mu ne ni muy ommate aw nit jamee leen ci pay boobu noonu lay wëlbatee ay nit itam jëmee leen ci safaan ba kon képp ku dem ci loo xam ne texe nga ci jëlee ak fajug ajo sa ay xusaadati boobu Cheikh Tidiane wax mu yàlla moo la ommat kon ñu ngi gërëm nit ñi di leen ndokkeel ci li nga xam ne moom lañ def ci ziyaara bi te di leen wax tam ci wax bu wér mais defal nañ ko koo xam ne am na pay defal nañ ko koo xam ne su la gërëmee Cheikh Tidiane gërëm la lu Cheikh Tidiane gërëmee yonent bi gërëm la bu la yonent bi gërëmee yàlla gërëm la moom wax na ne yonent bi mooy bunt yàlla kenn mën mënta jaar ci yàlla jaaru ci yonent bi ci gàmmoo 73 la ko wax waaye mu ne jaam bu xeebu bii di wax ak yéen itam mooy buntu yàlla mooy buntu yonent bi kenn mënta dem ci yoon bi te jaaroo ci moom mm-hmm. te loolu feeñ na ba ñëpp teg nañ ci seen bët ndax li nga xam ne moo nekkoon jafe-jafe ci kanam sëriñ si bu njëkk mm-hmm. mooy nit ñëw ne damaa bëgg a xam suma borom nga àggale ko ci boromam mm-hmm. te doo ko ci fayeeku dara waaw mooy woon sëriñ si ba moo taxoon Cheikh Tidiane wax ne faydu bi buy feeñ dana fekk sëriñ si nekk ci xat-xat dana fekk dana fekk nit ñi nekk ci xat-xat dana fekk nit ñi nekk ci jafe-jafe yooyu doot xat-xati xat dund doot xat-xati ñàkk waaye xat-xat yi nit ñi topp la nga ne sëriñ nga te buñ la laajee ne dañoo bëgg a àgg ci yàlla mënoo leen ci àggale taalibe bi itam am bëgg am topp sëriñ loolu di ko liggéeyal gu dégg bëccëg te sëriñ bi mënu ko àggale ci lu mu bëgg kon sëriñ ba mu ngi ci xat-xat taalibe bi mu ngi ci xat-xat xat boobu nag ba léegi képp ko xam ne yàlla omatul la nga jaar ci bàyyi wala nga jaar ci ku jaar ci moom rek ci xat-xat boobu ngay dund Alfayda FM moo tax ñi nga xam ne bëgg nañ seen bopp dara li bàyyi di wax mu ne ku bokk sa ku bugg sa bopp dara wala nga bugg dara ëllëg ci àllaaxira da nga seet fooy joxe sa bopp mu ne nag koo xam ne danga seet rek ne diwa ma neex rek dégg nga tànnal ku la neex rek nga topp waaye doomu aadama comme yàlla bi mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun ñi firi alquran am na ci ñoo xam ne dañ ne illa li yaarifuun yi ne lii maanaam laay ji mooy dama bind jinne ak nit pour ñu xam ma ndax nit bala ngay jaamu lëf da ko war a xam kon jaamu yàlla gi du mën a mat mukk te xamuñ yàlla bàyyi nag bunti xam yàlla boobu yàlla ubbi na ko ci loxoom te li may wax sëriñ si daanañ am ñeent fukki at ci xaloo daanañ am fanweeri at ci xaloo daanañ am ñaar fukki at di def ay salaatu ala nabi ay ñeent fukki junne ay juróom-benn fukki junne pour mën a àgg ci yàlla bàyyi ñëw xale bu tuuti buñ ko joxee sikkar bu amee ñetti fan li jafe woon wali yu mag yooyu loolu yomb ci kanamam loolu dama ne dara la waaw te loolu war nañ koo gërëm te war nañ ko waxtaanee itam waaw war nañ ko waxtaanee waxtaanee bi dana tax ñi am loolu gën ko téye dana tax itam ñi ko amut dem uti ko te su boobaa yow da nga am yool yi ku tegtale lu baax yan yonent na dana danañ ko fañ la fay yool bi fay la yool yi képp ku la ku topp loolu sa gannaaw kon ci loolu ñu ngi oo nit ñi ñëpp wan leen ne su fekkee ne bugg nañ dara ci seen bopp ci àddina wala ñu bugg dara seen bopp ëllëg ci àlaaxira nañ seet fi ñuy joxe seen bopp waaye jox sa bopp sëriñ boo xam ne xamal tous ci sa borom mënu laa xamal dara ci melo yu aju ci moom mënu laa xamal ay turam lu may di la nax ci ay wax yoo xam ne jëmut fen loolu tardé la te dafay tardé nit te doomu aadama la bindut ko pour mu tardé doomu aadama dañ koo bind pour muy dem ci kanam di yokk guddi ak bëccëg moo tax li ko yokk war nañ koo wax ku ko ci ku ci yàlla may feex ba nga topp ko alhamdulilahi rabbil alamin ku ci yàlla tawfiq itam ñu xam ne loolu la yàlla na mu ci yaw bàyyi nag yàlla moo ko doon wàcce ko ragal wàcce ko ci dëkk bu ñuy wax Kawlax moom ci boppam wax na ci waxtaan yi mu waxtaan ak boromam ci ay mbóot wane ne bañ ko tànn looyee fu ñu lay wàcce moom moo tànnoon pour wàcc Kawlax te waxoon na ne waa Kawlax war ngeen a sant yàlla ndax dëkk bu ma dem ci àddina su ma takkee suma bagage yi ne damay ñibbi dangay gis ay mag yu taxaw di jooy waaye su ma takkee suma bagage yéen laa jëm si te bi mu wàccee Kaolack li ëpp ci waa Kaolack dañ ko dëddu waaw moo tax nga xam ne yàlla mooy tànn ku ko neex ci lu ko neex bañ ko dëddoo itam yàlla indi na ñeneen ñoo xam ne dëkkuñu Kaolack ñu jox ko seen bopp jox ko seen àddina jox ko seen lépp moom waxoon na ne ci benn ziyaara ne géej fees rek moo ko war jur gi ci kër gi buñ ko naanut mu ne ay koobu danañ jógee ci àll bi naan loolu nag moo feeñ ci mbiram ñi jëriñu ci moom ñi ci ëpp bokkuñu ak moom dara bokkuñu ak moom xeet bokkuñu ak moom deret yàlla nag noonu la yafa mel Seydina Ousmane Ibn Affan ba mu nekkee xalifa waxoon na ne maa ngi xamal ni ñu ne yàlla benn askan doxul diggante ma kenn ba ngay ayoo ci moom dara waaw loolu nag ba léegi nii mooy li nga xam ne mooy di wéy kon képp koo xam ne yàlla jaarale la ci bunt bii wala ci bunt bu jaaree ci bunt boobu war ngaa sant yàlla sëñ euh, Seydou Aliou Sy radiyallahu anhu waxoon na ne ñi topp sëriñ bi bu fekkoon ne am nañ benn baat bu ëpp alhamdulilah war nañ ko wax ndax xam-xam boo xam ne buñ ko laaxoon ci géej gi mu fat ko mu far faral ko ci daw koo jox te feeku la dara laaju la dara liggéey la dara wax na sax ne lu am lu ñàkk benn la ci kanamam kooku ziyaara ko war na te ñi am tawfiq rek la yomb itam yàlla ñu yàlla boole ci ñoom ñuy déglu ñëpp tam yal na leen yàlla boole ci ñooñ tawfiq ñu ba nga xam ne lépp luñ ootee jëm ci bàyyi danañ ci góorgóorlu ci xew-xew boobu danañ waxaale xew-xew bu mag bu nekk suñ kanam muy gàmm gi gàmm gi moom nag jekk lu ñuy defal yonent bi la waaye ren dafa taseeg ñuy ubbi jumaa joo xam ne bàyyi moo ko doon yokk cinquante huit dañ commencé woon yokk boobu ndax mën nañoo wax ne zaawiya moo fa njëkk a nekk Medina 1930 zaawiya ba mu nekkoon yaakaar naa four bay five waaw waaw nga xam na yaatuutoon dara ba mu ci nekkee ci trente ba trente sept muy aji ci la moolu pour bu ñëwee tabax jumaa ji zaawiya ba sax ci jamono boobu ñu ngi ko tuddee woon zaawiyatu ahli zikri boo jàngee Kaashiful Albaas da nga gis si daal di bind fa ne ñu ngi ko tuddee zaawiyatu ahli zikri maanaam zaawiya ñi nga xam ne sikar mooy seen liggéey ndax mu ne ni mu dundee woon ci sikar ci jamono boobu bañ demee ba 37 ci la ko wax ne moolal ma bu ma ñibsee ci aj gi dama bëgg ñu tabax jumaa ñu ñibsee itam mu tabax jumaa yàlla def mu matal ko ci benn at mu ne jafe na ci jamono jooju nga gis ku mën a tabax jumaa jooju yàlla matal ko ci benn at ñu sanc ko ci 1938 nga xam ne ci la Sidi Ahmed Soukayri bindoon benn lettre bàyyi di ko wax ne wër naa ci suma xel lan laay wax ci jumaa ji nga ubbi nii ba yàlla wan ma ne maqaamu ibrahima man daxalahu kaana aminan bi hudaahu boo ko seetee ci chiffre lu mu tolloot rek mooy tolloog junne ak ñetti téeméer ak juróom fukk ci gàddaay yonent bi mooy at mi nga xam ne ci la baay matal liggéey boobu laaye boobu bi hudaahu la ci sukkeeri jog rek boo ko calculé mu jox la at mi nga xam ne ci lañ ubbi woon zaawiya boobu nga xam ne loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne am na lu muy tegtale dama ne 38 ñu julli ci jumaa jooju ba mu 1958 bàyyi door a oote daawatul jafala daawatul jafala mooy oote bi nga xam ne dafa waxoon ne taalibe yëpp la oo ak muqaddam yëpp bu ñu mën a nekk ci àddina jafala bu ko arab waxee mooy loo xam ne bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ góor bàyyiwuñ jigéen bàyyiwuñ mag bàyyiwuñ ndaw naqaraa nag bu ñu ko waxee mooy loo xam ne dafa am ñu ko moom waaye jafala moom pour ñëpp la 58 ci la defoon daawatul jafala ci lañ doon yokkaat jumaa ji waxoon naa ne zaawiya bi mu ngi nekkoon four by five jumaa ji 1938 mu ngi nekkoon 15 by 25 bañ jógee ci loolu bi ñu yokkee jumaa ji léegi mu ngi nekk 58 by 52. ci toll ci ni mu toll nii nga gis ne ba tey li ma waxoon sànq Cheikh Tidiane li mu wax radiyallahu anhu ne lépp loo xam ne yàlla la loolu dafay sax te dafay jokku te dafay yokk te kenn du ci mën dara. liñ fi sosoon ba bàyyi di sos ñi sosoon dooroon ak moom te nekkoon kaw la ñëpp seen liñ sosoon daanu na àtte nañ leen ndax ci fi caaxaan rek lañ ko sosoon waaye li nga xam ne ci dëgg la sosoon ba mu wanee gannaaw la gën a dëgër ci la ko nit ñi gën a gëm ci la ko nit ñi gën a topp kon dëgg rek mooy li am solo jumaa jooju nag moom la liggéeyam nekk ci yoon yi mat ñu war ko ubbi ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci février bii di ñëw ci 2010 bii ñu nekk bis boobu ca ngoon nga mën na nekk guddi gàmmu bi Alfayda FM bis àjjuma jooju mu nekk xew-xew bu mag boo xam ne waa mi dina mën nañoo wax ne mësuñu am xew-xew bu toll noonu keroog bi ñuy waxtaan ci kaw jumaa ji wax naa ne saalixiine yi dañoo wax ne sufiyankee dañoo wax ne fu ñuy tuddee saalixiine yi nit ñu baax ñi ñu ne ay yërmande dafay wàcc kon gàmmu suñu tudd yonent bi yërmande yu mag moo war a wàcc gàmmu gi nag kon dafa nekk loo xam ne dafa boole yonent bi ak yàlla ndax jumaa su ñu koy wax yàlla moo tax ndax néeg yàlla lañuy wax kon danañ tudd yonent bi ci gàmmu gi gannaaw buñ tuddee yàlla ci jumaa ji kon xew kaw gu mag a ngi noonu boo xam ne boole na ma yu rëy yoo xam ne yaakaar naa ne daal ko ko tardé dootoo ko mën a dab ci sa dund ndax waxoon na ba ñu ubbi zaawiya maam bi te zaawiya rek la ne xew-xew ngi nii boo xam ne ñu fi tasee dana jafe ci jamono ñu taseyaat te yaakaar naa ne loolu ñëpp gis nañ ko bii nag képp ku ko tarde dootoo ko mën a dabaatal ci sa dund waaw moo tax lam waxoon moom bàyyi ba ñuy teg xeer bu njëkk bi ci jëfalaa di yokk jumaa ji ne amul benn taalibe bu am ngànt ci ñàkk teew wax naa ne loolu ba ko waxee ak léegi juróom fukki at ñaar la liggéey boobu di war a pare wax jooju dafa mel ni pare pare liggéey boobu ko moom kenn amul ngant te waxoon na ne ku nekk da nga fexe ba sa jëmm ñëw te sa alal dugg ci waaw ndax mu jëriñ la boo liggéey ca pencam yàlla kon booleem ñi nga xam ne yëngatu nañ ci ci loolu itam jumaa ji def ci maa ngi leen di ndokkeel ndax jumaa ji dafay tànn am na ñu am alal jege lool te mënuñ ci dara am na ñoo xam ne itam li ñu am bëriwut waaye def nañ ci te loolu dana dëggal li bàyyi waxoon ne jumaa ji dama ko bëgg a tabax maag miskin yi wala maag suma taalibe yi bor bi mu ci leboon liñ koy commencé addunaa ko maa koy fay man kenn li ci des nag teg naa teg naa ko taalibe yi ñu def ko taalibe yi nag góorgóorlu nañ ku nekk rek def nga li nga mën ñu ngi ñaanal yàlla yàlla nangul ñëpp ñu ngi ñaan itam yàlla eggaleñ ci bis boobu te bu ñu ci eggalee itam yàlla nekk loo xam ne dana nekk bu mag béykaay bu mag pour taalibe yi seen soxla yëpp yàlla fajee ko ci ñu jege ak ñu sori bindoon na bàyyi na benn leetar mu sëriñ Haadi Naarul Seyit ko wax ne ko mais mu ngi yaakaar ne addina bi dana jagee ci jumaa ji su waaw ah, loolu nag yaakaar bu rëy la mhm. te dama ne moom bu ne addina bi jullit ñi ak taalibe bi ñoom ñoo nekk ci xalam waxtu nekk ndax jullit ñi am ndimbali yàlla ba doon dara ci kaw suuf daf ko itteel ñi ko topp itam ñu nekk dara daf ko itteel ndax am na leetar bu mu bind muqaddam yi mag yi di leen wax ne leen ku ñu waxoon ci yéen ne na dugg aljana te moromam du dugg bu mu dugg ndax man mii buñ demee ba àlaxira suñ ne moon dugal te ñii nga antoon duñ dugg ma du ma dugg waaw loolu nag ku ànd ak nit ku mel noonu kooku lépp lu la digg rek war ngaa xam ne sa njëriñ ci nekk te waxoon na ne itam moom li muy digal moom ci la nekk benn ziar moom ci loolu lay nekk ci loolu lay jaamu yàlla digalu leen loo xam ne bokkut ak jëfam li muy jëf loolu leen di digal kon kooku naxul ñu ci benn anam daf ñoo dimbale ñu ameel ko bor boo xam ne duñ ko mën a fay mukk waaye yàlla ko yàlla fay yàlla ko yàlla fay yàlla yàlla yokk leeram yàlla na yàlla matal ay bëgg-bëggam ci diine ji ci tariqa bi ak ci faydu bi yëpp xam nañ ne loolu dana am waaye xanaa fexe ba bokk ci euh, ndax dama wax ci benn waxtaan ma ne Cheikh Tidiane radiallahu anhu dafa wax ne feeg lislaam a ngi dox rek tariqa Tidiane mu ngi dox ànd ak diine lislaam tey loolu itam loo mooy mboolem tariqa yi ci àddina bi tariqa Tidiane ci ëpp doole moo ci ëpp ay nit faydu bi nga xam ne itam mbóot la moo xam ne mooy mbóot tariqa bi dama ne fekk tariqa ngi dox faydu baa ngi dox ànd ak moom te loolu itam di koy dëggal mooy faydu bi ñi ci aju tey suñ génnoon rek kon tijaaniyatu mën nañoo wax ne dara du ci des ndax bàyyi ñi ko topp tey ñi dëkkee Sénégal mën ngaa wax ne fukki million ak benn ñoo dëkkee Sénégal ñi ko topp léegi dem na ci téeméeri million ak nangam maanaam li dëkkee Sénégal fukki yoon. Alfayda FM. dem na ci ñi nga xam ne ñu ngi aju ci faydu bi ci réew yu fasanti ko kon ñi nekk ci faydu bi tey mën nañu wax ne ñooy mbët tariqa bi ñooy kenn yi nga xam ne ñoo dundal tariqa bi ñoo ko ñoo waxoon na moom ca Rihla Conakry bàyyi ba mu demee Conakry 1946. waxoon na ne law chitu amma fayduhu lbasita wa adraku asrarahu lmuhita alima dalika fulanun wa fulan kaza fulanun massimaauka liyan wa marratan oxra tarawna ajaba min faydi di lxatmi imami nujaba wa daka kullan faydatu tijaani madadul mustafa waral adnaani wa daka kullan minnatu lmannaani ahmaduhu fi sirri wala alaani waxoon na ca 46 ba mu demee Conakry ne su ma neexoon faydu bi dajal àddina yëpp ci benn jamono ñu jot itam mboota mi nga xam ne yëpp ju ngi ko nëbb lëm ko mu ne kon ñu yor mboot yooyu yëpp ne loolu diw ak diw ak diw xam nañ ko tuddul seen tur yi ne dégg ak gi du di dégg mbir ba janoog moom mu ne du benn waaye mu ne beneen yoon nag da ngeen gis kéemtaan ci affaire faydu bi loolu ba bu set ñu gis ko ndax ci lakk arab buñ nakiraalee mbir ne wa maratan bokk ak ñu ne wal marrata su fekkoon ne marratan bi dafa am alif ak laam kon benn yoon la waaye ba mu ne woon marratan rek mooy dafay répété waaw di tegal di ñëw rek par yoon yoon yoon yoon ay yoon yoon yi maanaam kéemtaan yoo xam ne du taxawati dafay feeñ waxtu wu nekk di yokk waxtu wu nekk te loolu ñu ngi koy gis lépp loo xam ne waxoon nañ ko ñu ngi koy gis loolu moo ñu xamal ne liñ gisagut itam danañ ko gis liñ ñu dégg itam liñ ñu dégg itam ci pencam yàlla danañ ko gis ndax Cheikh Tidiane radiallahu anhu wax na ne yonent bi digg na ko loo xam ne ci tariqa bi ak ñi ko jàpp mu ne su ko waxoon yeneen wali yi sax danañ dajee pour dagg baatam bi waaw te mu ne loolu bokkut ak li ma leen wax ni yëpp ci ay ngëneel mu ne loolu ay mbóot la yoo xam ne su ma ko waxoon kon wali yi ñooy dajee pour dagg suma baat kon loolu itam tawfiq la yàlla bind la rek nga nekk doomu aadama tawfiq la xéewal la ba nga nekkee doomu aadama itam yàlla may la xel ba nga mën a tànn diine nga taseeg xeetu yonent bi bokk ci ñoom emoo ci bokk ci xeetu yonent bi waaye diine ji nga xam ne mooy diine ji nga xam ne moo wér ci yàlla ci jamono ji mu diine lislaam nga bokk ci islaam itam nga nekk ci di jaamu yàlla ba imaamu tariqati feeñ nga xam ne mooy xaatimul wilaayatil mu cheikh tijaani radiallahu anhu nga xam ne maqaama boobu am na ay waliyu yu ko oote woon njëkk Cheikh Tijaani di ko oote ibnu arabi alxaatimi ci xarnu juróom benn téeméer ci gàddaay gi oote woon na ne moom mooy xaatimul wilaayatul muhammadiyati waaye ba muy génn àddina wax na ne du man am na ñeneen ñoo xam ne ooteeloon nañ leen ko nañ ci ba setu ci te bi ko Cheikh Tijaani ootee ba léegi Cheikh Tidiane bi ñu ko dugalee ci suuf ak léegi dem na ci ñaar téeméeri at ak juróomi weer bu ba léegi nit feeñul wax ne man maay xaatimul wilaayati muhammadiyati te ba muy wax ci dundam ne suma ñaari tànk yi teg naa ko ci doqe waliyu bu nekk kenn ci mu muqaddama yi mu Sidi Mouhamadul Ghali nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Omar Fouti daf ko laaj na ko li nga wax nii bu beneen waliyu feeñee sa gannaaw wax ko lan la ñuy def Cheikh Tidiane ne ko kenn dootu ko wax suma gannaaw kenn waxatu ko affaire faydu bi itam nga xam ne Cheikh Tidiane moo waxoon ne dana feeñ ci tariqa bi nit ñi di dugg ci tariqa bi ay kuréeli kuréel am nañu ko oote njëkk bàyyi di ko oote Cheikh Omar Fouti oote woon na ko waaye Cheikh Omar mujj bind na leetar benn sëriñ bu ñuy wax Ahmad Maham waa Mauritanie la nekkoo ko li ma oote woon génn naa ci maanaam du man Mouhamadul Xaafis Ulul Xayri benn yu woon waxoon na ne moom la te ba mu koy oote fanweeri at la am te waxoon na ne borom faydu bi fanweeri at lay am gannaaw gi génne na ci abdoulaye waladul xaaj nga xam ne moo jur mouhamadul misri mi nga xam ne ci taalibe bàyyi la bokk oote woon na ko te moom bokk na ci ñuy jox bàyyi lijaasa gannaaw gi génn na ci te wax na bàyyi sax ne ko yow yaay kilifaay tariqa bi tey te képp ku ko oote faydu bii majaas la mooy loo xam ne lu amul la ku mooy yow yow nag soo ko ootee xaqala mooy loo xam ne dëgg la lu am la mbóot mi feeñ ci Cheikh Tidiane ba nga xamee ne wax na ne kenn dootu ko fi wax mbóot moom moo feeñ ci Baye ndax ba Baye waxee ne faydu bi feeñ na ci loxoom ba léegi amul benn kilifa ci kilifaay tariqa bi ku wax ne fii ne faydu bi Baye ñu Cheikh doon wax man la soo ko waxee teg te li fi taxaw dana la fenloo ndax Cheikh Tidiane waxoon na ne nit ñi dana ñàkk ci xat-xat xat yooyu ñàkk xam yàlla la moom bi na nit ñi yàlla Cheikh Tidiane waxoon na ne su boobaa nit ñi dañ dugg ay junne junne ay kuréeli kuréel ci tariqa bi ay kuréeli kuréel yu dugg ci tariqa bi bàyyi lañ gis sëriñ bu ko yàlla defal ndax moom benn jotaayam ci yende ci Ghana 1952 wax na ak nit ñi ñeenti junne nit tëb dugg ci lislaam ci benn jotaay ñeenti junne loolu la anglais yi bind mu nga Angleterre ci seen bibliothèque foofu waaye comme tubaab yi bind nañ ñeenti junne ëpp na ko bàyyi moom ba muy wax def ne laqantu alaafan walan tuadda ne na jox naa ay junne junne talqin naa leen jox naa leen wax naa leen baati shahada yi laa ilaha illallah ñu wax ko moom ay junne junne la wax emale ko ci ñeenti junne bi nga xam ne moom la ñu lay wax kon tegtal bi nga xam ne moo xewoon Cheikh Diane xew na ci moom ay kuréel kuréel ñuy dugg ci dina ji xewut lu may bi mu ñëwee moo tax ñu mën a waxtaane bàyyi na fi ay taalibe lu dem ci téeméeri million ak nangam te duut itam ci Afrique la am duut ci Sénégal la am fu nekk ci àddina tey da nga fa gis koo xam ne mu ngi waxee affaire yi fardu bi kon ñun war nañoo sant yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu waaw bi kontaan na bu baax a a baax xam naa ne du ñàkk du ñu doy lu mukk nag ci waxtaan ak yéen dafa neex <laughs> dafa neex euh, macha allah xam naa euh, li nga xam ne xëj na mën nañ koo laal gën cee kile bokk na juyoon nga ko ci njëlbeen bi ngay wax ci mbiri siyaare Euh, ba nga xamee ne euh, mu ngi mel ni li nga ci wax yëpp ci nga dafa mel ni kon nit ki teewal boppam daal defe naa moom moo gën. waaw ndax euh, Baye mas naa wax ne képp koo xam ne da ngaa da ngaa ñëw pour ziara si yàlla da nga ñëwoon waaye mu ne ku wax ne da ngay damay nekk ba am xaalis bu ma demee door a dem mu ne boo amee bul ñëw nga xam ne kon jëmm yi ñoo koy teel te waxoon na ne itam su ko yàlla joxoon ndigal ci mu soppandiku ci xol yi mu sopp mu ndigali tasarruf maanaam tasarruf mooy. loo bëgg def rek def ko moom yàlla jox na ko ko waaye dafay nëbb boppam noonu xam nga wali yi dañuy nëbb seen may yi duñ ko wax lu may su fekkee ne gis nañ koo xam ne nar nañ koo jëriñ ñu laaye ko biir moo tax mu ne su ma yàlla joxoon tasaruf kon danaa def tasaruf ci xol yi bañ nekkal yàlla mu ne ñu ko joxoon digal ci tasaruf ci soppandiku kon dana soppandiku ci xol yi mbindeef yi ñu nekkal yàlla kon ñëw mbindeef yi moo ko gën a soxlaal moo gën a intéressé itam xam nga nit ki bu ñëwee ak jëmmam xam nga yaa ngi may wax léegi ne ziara bi neex na wax yi ñu fa wax neex na fokk rek loo bari bari bëri bari xam-xam danga fa dégg ay baat yoo xam ne mosoo ko dégg da fa dégg ay xam yoo xam ne mosoo ko dégg te loolu dem ak sa jëmm moo koy may nit yàlla baax na léegi ba nga xamee ni sax rajo yu mel ni comme seen rajo yi ñu ngi tasaareel li ñuy wax yi ñu di ko déglu waaye nag su boobaa yool yi dem ak sa jëmm doo ko am te nit ki dafa war a dem ak jëmmam pour jëli njëriñ yàlla dafa wàcc laay ci alquran ne ñi dem ci jihaad yi ak ñi toog duñu em Alfayda FM Abdullah ibnu Umm Maktum comme gumbala woon mu ñëw ci yonent bi yëfi naqari ko mu ne ko ñun ñu nga xam ne gumba lañ mënuñoo dem nan la ñuy def foofu rek bàyyi mun a jibril dem ci asamaan del seet indi benn baat rek xayri uli darari yàlla ne lu may ñi am lor ñi am lor génn nañ ci wax jooju bàyyi mu ne nga gis ne kon nit war naa dem pour sàkku ji xam-xam ndax benn baat dem ci kaw del mu ne looloo tax imaam abu xanifata ci borom ngër yi la bokk mas naa dégg rek ne am na benn xadis boo xam ne ki ko amee ci jamono jooju benn nit la benn sëriñ la te mu ngi ca xuraasaana dëkk bu sori la te boobu abu xanifata mu ngi dëkk iraq abu xanifata daal di war dem ba egg xuraasaan pour dégg rek xadis boobu nga xam ne dégg na ne yonentu bee ko benn nit rek ko amee ci àddina bi mu demee ba ci sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum fekk sëriñ bi di jox benn xaj lekk muy lekk sëriñ bi ne ko aleykum salaam continuer di jox xaj bi lekk ba mu paree xaj bi ne ko bi ma fekkee léegi may jox xaj bi lu tax ma fay la rek continuer di jox xaj bi xaj bi man la yaakaar te yonent bi ne na képp ku tas yaakaar yi ku la yaakaar yàlla na yàlla tas sa yaakaar pencam yàlla rek mu ne ko maa ngi ñibbi hadis bi laa doon jël si kon ñëw ak jëmmu dana jëriñ te ci la njëriñ gën a nekk soo ñëwee nag ak sa jëmm ak sa alal su boobaa yow yàlla jënd na ci yow sa alal ak sa jëmm pour fayal la ko aljanna moo tax bàyyi ne lii jaay aljanna la te ki koy jaay yàlla la te bakkan yi ak alal yi lay laaj kon ñi ñëw ziara si seen alal indi seen jëmm yàlla jox na leen aljanna jooju. macha allah euh, sëñ bi defe naa balaa ñuy euh, jëkkali. waaw euh, sëñ bi defe naa ne foofu am na solo leer na naññe léegi comme ñu ngi wax waxi ubbi jumaa ji defe naa ne boobu léegi liggéey bi doon na yàgg na mi ngi mel ni sax wax nañu ne am na ñenn ci taalibe Baay yi nga xam ne yàlla dimbale na leen taxawoon nañu pour tabax ko waaye mu mel ni daal bàyyi yërmandeem moo jéggi woon foofa pour ñëpp bokk ci rawatina miskin yi euh, te ji nga xam ne ñi ngi wax wax yu ubbi ko ndax xëy na du ñàkk dinañ mën a am solo pour ñu xam fan la liggéey jumaa bi toll ñu gannaaw ba nga xame ne te itam nag sëriñ bi defe naa liggéey jumaa ji sax nag buñ ko wax nag ci jamono bi mukk nag te delluñu wuñu sunu xel ak sunu xalaat yëpp nag Euh, suy euh, imam Cheikh Hassan Cissé sa mag bu tedd le nga xam ne moom itam léppam jumaa ji doon wax dëgg yàlla euh, xanaa teewlu ko rek ndax itam ci liggéey la boo xam ne liggéey bu taaru la boo xam ne def na ko doog la ko jox ñuy ñaan yàlla yàlla mottali lépp sa kanam incha allah rabbi dina am solo defe naa foofu buñ fa tolloo xëy na ñu xam fan la liggéey bi toll liggéey jumaa ji comme ni ma waxoon sànq xam nga wax naa leen ne 38 la jumaa ju njëkk ji pare woon mm-hmm. ñu julli ci ñaar fukki at 58 bàyyi oote jafe la mm-hmm. pour nen nañ yokk jumaa ji leen xamal mbokk yi ci kattanu yàlla ñu ngi toog fii euh, di waxtaan ak euh, cheikh euh, imam cheikh Alioune Cissé tertian Alioune Cissé di waxtaan ci mbiri jumaa ji ñu ngi ànd ak suñu mbokk cheikh sama yaay imam yaa ngi woon fa am solo mu aju ci fi nga xam ne foofu la jumaa ji toll dama ne 1938 ci la jumaa ji njëkk ji ci lañ ko sancoon ñu julli ci ñaar fukki at ba 58 bàyyi door a oote ne jëfalaa nee na muqaddam yeeg taalibe yëpp ñëw te kenn amul gant pour ñëw ñu yokk jumaa ji yàlla daf ko may gis-gis boo xam ne gis-gis bi dafa gudd dama ne Alfayda FM wali yàlla la boo xam ne dafa ñëw ànd ak ay bagaasam yëpp ñëw xutba yi ñuy xutba ajuma tey ci jumaa ji foofu ba mu koy bind ba mu koy bind boobu mën nañoo wax ne ba mu koy bind boobu mën nañoo wax ne amut jumaa sax waaw jiitu na jumaa yi waaw waaye yàlla xamaloon na ko ne jumaa dana fa taxaw ba muy yokk jumaa ji itam jamono jooju li newoon ci nit ci àddina ak la fa nekkoon ci ay taalibe xajoon nañ ci jumaa ju njëkk ji waaye li tax mu ne nañ ko yokk moom xam na ne mbooloo maa ngi ñëw te nit ñaa ngi ñëw xam nga dafa am koo xam ne dafa waxa boo xam ne waxi borom xam-xam la te moom sax jàngut mm-hmm. mu ne bàyyi li tax mu génnee ñaseen toxu kër baayam ñëw Medina mu ne jumaa ji moo xajutoon foofu mu ne jumaa ji xajut foofu ñaseen moo tax bàyyi yàlla génne ko foofu waaw ñëw loo ko dëkk tabax fa jumaa ji oote itam ne nañ ko yokk ci jamono boo xam nañu fa nekkoon waaye na ne nit ñi dañuy yokk si te li gisoon lépp gis nañ ko tey mu def ci ay itteem jamono boobu su bayee tool ba tool bi ñor dafay bind Sidi Ali lettar ne ko tool bi defal ma ko ci jumaa ji jox naa ko jumaa ji addiya lépp luñ ko jox itam moo xam ne xaalis jumaa ji la du nangu mu nekk ci loxoom ndax naan joxal sañaali mu téye ndax benn kilifa moo ma nettali ma dama ñëw indil ko ñaare xaalis moom bàyyi ci Lagos ne ko bii yow laa ko jox addiya lii nag jumaa ji laa ko jox mu ne bàyyi ne ko ana bi ma jox mu ne ko mu ngi nii mu ne bàyyi def ci roon njaganaayam bàyyi ne ko ana bi nga jox jumaa ji mu ne ko mu ngi nii mu ne ko joxal ma diw mu teel ma suñu eggee mu jox ko señaari pour mu def ko ci jumaa ji itteem lépp nekk jumaa ji su tukkee loolu la dégg ci dundam ñun gis nañ mu Sidi Ali dem ay yooni yoon di war Afrique ay juróom-ñetti weer du ne itte yi tey la commencé looloo tax ci ziyaara bi nag ma dégg ma wax ne photo yi fi jaar yëpp ay melo baay rek lañ waaw waaw waaye moom itteem moo doon tabax moo doon liggéey mhm. Sidi Ali daana dem juróom-ñeenti weer soixante neuf dem na juróom-ñeenti weer dégg dem na lu mat juróom weer ba mujj gi bàyyi defal defar ay kart mhm. yoo xam ne ittihaadul islaamil ifriqi la tuddeewoon kii boobu moom mu nekkoon président bi Sidi Ali mu nekkoon secrétaire général bi ñu koy jox taalibe yi buñ la dagalee benn nii nga fay téeméer soo amee njëgi junne ñu jox la fukk fukki ticket boo amee njëgi carnet bi lépp fukki junne ñu jox la carnet bi nit ñi di ko jënd Sénégal ba Sénégal daj mu jóg tukkil ko wër àddina bi lépp imaam Asa nett li ma ne ma mu ne ba Sidi Ali ñibbisee waaye def na suñu Aliou kay xaalis bi mu indi mottali na jumaa ji dégg ci ci jamono boobu gannaaw baay itam mu continuer soixante dix indi na hundred million waaw ci diggante ay Nigeria ak yooyu mm-hmm. waaw waaw pour indil ko jumaa ji hundred million ci boobu jamono moom mën fi nekk ni milliard a boobu dévaluation amul ba pare te yëf itam chéré wutoon nii kon ñoom seen ité rek ci lañ defee gannaaw yi ci lañ jokkale ité boobu si di ali amoon ci la imaam ñëw wutu ko ci imaamatu bi continuer ci ité boobu waaw ndax nit ki lépp loo xam ne daf ci juddu ñu yar ko ci pour mu liggéey ci daf ko yomb du nekk ngóoraam de waaw du nekk ngóoraam yëfi yàlla la waaw du nekk ngóoraay nit ki ndax imaam waxoon na benn nit ne ko mu ne ko lu tax ngay may jox sukkari koor di ko joxe ci suma kër di ma romb mu ne ko damay bañ nga joxe ko moo tax ma dem yónnee ko sa waa yi maanaam mm-hmm. ne ko da ngaa foog ne fi ma toog nii lu ñu ma jox maako ko moom ne ko man bi ma nekkee ci mbedd mi waxaguñ ne ma ut suma baay mm-hmm. kenn joxu moom dara kon bi ma ut suma baay ñi may jox place bi lañuy jox place boobu nag moo yombal liggéey bi yëpp ndax ñi lay xool ba nga boo leen waxee ñu def la ñuy xool moo tax du ngóor a kenn moom li bàyyi wax ne jamono nag man naa dimbale nit ba mu feeñal loo xam ne bàyyi mënu ko woon a feeñal waaye mu ne bu mu tax nga foog ne bàyyi sa bàyyi sa morom la mu ne bàyyi mel ni ñoom jafe na sakka di leen sut bàyyi moo wax loolu soixante-quatorze maa ngi amee bànd waaw mu ne bàyyi moo wax ne mel ni bàyyi mel ni ñoom jafe na sakka di leen sut ci seen barke ci lañuy ñuy tëbboo sax pour mën a def waaw bàyyi yàlla moo ko dimbaleel boppam xam nga sëriñ si ñu bëri dañoo mag seen kër bàyyi seen bàyyi gën a dinañu toog bàyyi moom yàlla moo ko dimbaleel ma ko boppam toogut ci fi baayam moo tax géwél yi dañ koy dañuy wax ne dañ koy kañee ne sëriñ si yëpp su seen baay yi del si woon ñu dellu nekk ay ndongo ba mu des alaaji Ibrahima Ñas ndax moom yëfi boppam la amee te ci doomi baayam yi mujj yi la bokk ndax baayam bi mu koy jur am na juróom fukki at juróom ci doom yi mujj yi la bokk mënuñoo wax ne moom mag ci kër baayam mënuñoo wax ne itam yaayam mi ko jur moom mag ci doom yaayam yi ndax wax na ne mbir mii yàlla su fekkoon ne alaaji Abdoulaye Niass a koy joxe kon mu jox ko xalifa mi ma jur mi mi ma mag xalifa mag ci ay doomam mu ne su fekkoon ne itam ak asu jànq mi suma yaay moo koy joxe kon mu jox ko Mahmoud ndax Mahmoud a ma mag waaye lii yëfi yàlla la yàlla moo koy jox ko neex mhm. ba mu génnee àddina nag ba léegi itteem moo fi nekk ak ay ñaanam képp ku ñu wax ne foog nga ci benn place boo xam ne place la su fekkee ne ci ndigal lu wér la rek loolu moo lay dimbale ba lépp loo bëgg a def danga ko ci itte boobu ci la imaam utoon Sidi Ali ci liggéey bi nga xam ne moom la si Sidi Ali doon liggéey guddi ak bëccëg waaw te amul rek ci affaire liggéey jumaa ji waaye lépp lu aju ci faydu bi boo ko xoolee da nga ci gis loxoom da ci gis mbindam waaw yéen dafa ñëw barke bi dafa ñëw ba egg ci ñun rek ñun ñu di ko jëriñoo ñoom ñu ko sonne woon fekk nañ waaw moo tax da nga yéem fekk li nga yéem seen barke la ñoom waaw looloo tax imaam ñëw uutu liggéey na ci def na ci bàyyi na fi xaalis ba xam ne pour ñu defal ko ko ci jumaa ji ñun ñi nga xamante la fi dañ ci pour loolu mën a mottali jumaa ji ñeneen nga xam ne itam comme ni ma ko waxee sànq ay taalibe bàyyi la ñu dëggu lañ ndax am na ko xam ne dama na ko jumaa ji ku yàlla dimbalewut sa xaalis su ci dem bu la am poosam trois ku la ci fekk mu jox ma ko dama dimbale ma mu dugg ci waaw maanaam ko jumaa ji dafay tànn juróom benn fukk la fekk ci poosam mu jox ma ko mm-hmm. waaye dama ko koo joxee ci xaalis jumaa ji ndax juróom-benn fukk xëy na mën naa dugg ci dara ci weccet bu ñu war a fay wala dara te su boobaa ci jumaa ji la dugg fexe naa ba dugalal ko ko waaw te dafa am benn kilifa boo xam ne jigéen la waaye kilifa la ci Mauritanie ñu koy wax Mariam Bint sol ba kilifa yi la bokk nga xam ne gis naa fu bàyyi bind di ko wax ne ko ñu néew sax ci góor ñi ñoo egg si fi nga egg ci yàlla gisoon na lu ko yàlla wan ci jumaa ji mu bind bàyyi lettre yónnee ko lettre boobu bàyyi jox ko si daan ne ko jumaa ji kenn du ci liggéey walla nga def ci lu may koo xam ne yàlla moo la tànnoon ci azar maanaa ku yàlla mënu cee def ne malaaka yi nga xam ne itam ñoo doon tabax kaaba bi ci mujjanteel yi liggéey jumaa ji danañ ñëw bokk ci ñuy liggéey ci jumaa ji mu ne ci lañ ñi mujj a liggéeyee nag ci jumaa dootuñ feeñati fenn ci àddina waaw te ñu ngi ci mujjanteel bi fi mel nii kon ñu ngi yaakaar ne ñoom seen loxo mu ngi ci waaw ndax lépp lu jafe yàlla yombal na ko lu sori woon yàlla jegeel na ko lu yéexoon yàlla gaawal na ko waaye lépp nam nam yàlla la ak ittey bàyyi wax naa la ne la kenn amul itte foofu itteem la moom ñi ci des ñam ay am lañ rek dem waaw moom nag moo ciy dox waaw yonent bi sax wax na ci xadis ne yàlla su bëggee ñu ne nit ku baax nga mooy bind ay jëf yu baax wéer la ko ñu ne Boubacar moo fi gën mu ne su bëggee itam ñu mere nit ki mooy bind ay jëfam yu won wéer ko nit ki ñu naan diw moo fi gën a bon mu ne fekk ñoom ñaar ñëpp defuñ dara lépp nam na mam la rek waaw bàyyi itam comme lim ñaan yàlla ñaan na ko te wér na ko ne yàlla may na ko ko képp ku ci def dara duut sa ngóor waaw maqaamaam bi mooy liggéey waaw maqaamaam bi ak itteem mooy liggéey waaw ku am tawfeex nag da bokk ci ñi ñuy tudd ne def wala def nañ waaw mm-hmm. waaye moom yëpp ay yëfam la ifadatuka minka ilayka ci moom la jógee ci moom la jëm Alfayda FM waaw mm-hmm. moom mooy tëbb mooy def mm-hmm. mooy def ay yëfam heure bi nga xam ne itam ku wax ne bu ma sooboon faydu bi mat matal àddina ci benn bis kooku kay bu ko neexoon jumaam ci mat ci kanamam ci benn waxtu ci benn at ndax jumaa ji njëkk ji ci benn at la ko topp te boobu kenn amul dara ndax boobu bàyyi laa Omar Kan mi joxe woon dañ doon boobu moom kenn rek ko man ci jamono jooju waaw te dañ doon wax ndax xam ngeen junne ni ñi ne déedéet ñu ne dërëm dërëm dërëm dërëm ba muy fukki yoon waaw loolu ba muy fukki yoon muy téeméer loolu te loolu lañ ko doon waxee pour nit ñi xam junne mooy lan moom rek moo ko ci mënoon a joxe ndax boobu li la xamal ne junne dara la mooy boobu bàyyi bi muy aji ajam bu njëkk 37 boobu nga xam ne ci la doon moolu pour bu ñëwee tabax jumaa ji junne ñaar téeméer la aje dem ci def jumaa ci benn at bu ko neexoon jumaa ji itam mat ci benn at waaye li mu wax ne maag miskin yee ko bu ko tabax maag suma taalibe ak maag miskin yi loolu moom la yàlla doon yéexal nii muy dem ndànk-ndànk rek ku nekk rek yàlla may la ci cër fekk lépp cëram la lépp moom moo ko moom ifadatu ko min ko ilayka la ku ci def dara itam moom la yàlla moo la nar a fay rek moo la nar a dimbale boole la ci loolu rek la waaw hmm. alhamdulilah sëriñ bi defe naa ñaa ngi doon di ñëw di ziare si nga xam na li nga xam ne moom la ñuy mujjee moo di eh, cërëb gàmbi ci biir li yëpp ndax euh, ala kulli xaal euh, duñu bàkku mukk ndax lu nekk lu nekk ñu ngi koy def ci taalibeya taalibeya bi nag defe naa ne la ma ko feeñal mooy lu ñu def mu mel ni xeeb nañu ko xëy na ñoom bu ñu waree ñëw li ma waxoon keroog ca programme bi ñu amoon ca rajo ba di wax ci mbiri jumaa ji dama ne Gambie nag cër bi ko yàlla ci jox du gan dafa bokk ci ñi nga xam ne dañuy ganale ma bëggoon foofu nga wax ci as lëf ndax cër la boo xam ne man gëm naa ne yàlla jox na ko réew mi mu feeñ ci anam yu bëree bëri bëri salaamaaleykum yàlla moo def ñu bugg bàyyi bàyyi bugg leen bàyyi dégg naa ko ci bande bu wax ne bàyyam mu ñëwoon fii jamono bi nga xamee ne jubóowut ak tubaab yi nekkoon Sénégal mu ñëw Banjul xam nga wax nañ ne maamalaa ji toog na fii at di wàññi julli ci Banjul gii ndax xamul kañ lay dem te fekk xamoo kañ lay dem sa julli mën nga ko di wàññi li mu fi nekk noonu itam nam nam yàlla yàlla naroon na jëriñ ay nit ndax ñoom xam nga ñoom maas jaag ak ñoom ñëpp moo leen fireel alxuraan ma Faye bi nga xam ne moo jur Cheikh Faye ñoom ñëpp maam alaaji jamono bi ñu fi nekkee moo leen fi moo leen di jaasaat yàlla léeg-léeg su naree jëriñ dafay def lu mel ni fitna fekk jublut ci fitna jëriñ la su joteewutoon ak tubaab bi du ñëw Banjul jamono boobu te boobu waa Banjul war nañoo jëriñu mu ñëw jëriñ leen ci li nga xam ne moom la yàlla joxe jo def ci loxoom bàyyi mu ne ba mu fi jógee man tam ma wéyal li sama bàyyi doon doxal ak ñoom di dem di leen demal ñu dikkal dégg nga ba xam ne tukkee mu njëkk ci àddina gannaaw ajeem Makka fii la jaaree bi muy dem kanu yoonam bu njëkk ci quarante six xam nga photo bi ba léegi sax ni ñaa ko amee mu ngi toog ci aéroport bi fii la jaare ñu nekk ñoo xam ne ñu bëgg bàyyi lañ naka jekk ci maam yi ci bàyyi ba ci jamono ji nii loolu du soppeeku mukk imaam daf daan wax ne ñun Sénégal la ñuy tumuranke waaye Banjul moom bu ñu fi duggee rek dootuñ tumuranke ndax ñoom dañoo bëgg bàyyi ñii ñoo ñu bugg ñii ñoo ñu bugg loolu daan wax bu ñu daan dugg fii loolu lay wax dégg loolu yëpp mbëggeel gi ñu bugg bàyyi ak aju bi ñu aju ci moom xam nga keroog ba ngeen indee li waa Banjul teg pour ñu defal leen ko ci jumaa ji keroog wax naa leen ko foofu ci suma nekk dégg nga loolu yëpp ndimbali yàlla la bu leen yàlla defal am na dëkk yu gën a jege lax bokk ci Sénégal te joxuñ tus am na ñoo xam ne sax ñoo bàyyi bokk joxuñ ci jumaa tus kon yàlla mooy tànn ku ko neex ci lu ko neex ku mu nar a jëriñ itam moo lay awale ci yoon wi nga war a jëriñoo ba nga man cee aw kon waa Banjul foog ñu ndokkeel leen ñoom itam ñu waajal bis boobu nga xam ne ci lañ jëm ñoom bu ñëwee mi dina ñoom sax dañoo war a ganale gan ñi nga xam ne ñooy jógee feneen bu ñu jàppee seen bopp gan ndax ñoom duñ fa loolu rek mooy li nga xam ne moom laay tëjee suma wax asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh mbokk yi lii lañu waxtu mayoon ñu ngi gërëm bu baax a baax sëriñ bi wax yàlla sonn na xat na lool waaye euh, alhamdulilah ci Euh, waaw itam ci euh, askan bi itam ci taalibe yi tax na ba mu joxe lenn ci waxtoom ñun ñaa ngi fi nag danañu xormaal nit ñi ñoom itam dañoo ñëw siyaare si yi xat na mm, waaw incha allah rabbi xëj na kon li nga xam ne dinañ ko laaj euh, moo di tey jii bu ñuy wax xayma ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ndax mbir mu yéeme la mbir mu yéeme la ngi mel ni mm, ci anam bu njëkk ubbite jumaa bi nga xam ne liggéey nañ ci ci ay ati at dana méngoo ak gàmm oh, junj ko léegi ci anam bu rafet dañ fa tudd yàlla dañ fa tudd kon mu mel ni àdduna si yëpp ñi ngi war a ñëw euh, xëj na foofu nag bu ñu fa tolloo dina am solo pour nit ñi bu ñu ñëw ñu xam xayma ndax daan nañ dem nga gàmmu daan nañ dem jumaa waaye xëy na bii yoon mooy yoon bu njëkk woo xam ne lu mel ni dina am te ñun yëg nañ ne yéen a ngi jokkoo ak àdduna si xëy na dina am solo ñu xam lenn ci li nga xam ne moom mooy lii war a ñëw. Alfayda FM. alhamdulilah loolu moom loolu dañuy xayma rek waaye mënaguñ koo xam na àddina bi yëpp a yëngatu fu nekk fu nekk ni ñaa ngi wax ne dañuy ñëw. xam nga Nigeria rek li fa nekk ci ay taalibe su ñëwoon xajuñ senegal te ñu bëri ci ñoom ñu ngi waaj pour ñëw miskin yi nga xam ne sax amuñ paas ndax fan yee ci gannaaw rek am na aw awsa bu ñëw jógee kanu indil ma photo benn nit ne ma kii mu ne ma indil la photo am pour nga ñaanal ko ndax mu ñëw ndax mu ne su demee ba amut paas dana jaay këram gi pour paasee ku ñëw te loolu du ne mu ngi door a am ni ci jamono baay am na mu muqaddam bu ñuy wax Nasiruddin gaana la nekkoon bu njëkk mu Muinuddin la ko sëriñam tudde woon ba mu taseeg baay bàyyi na ko tudde naa la Nasiruddin sëriñam boobu doon ko jàngal xam-xam yi téere yi Abdou Dantano la tuddoon ci Kumasi doomam moomu nettali taawam ñu koy Abdou Hamid dafa am benn at mu jéem def pexe pour mën a ñëw Medina ziyaara si bàyyi amul pexe mu ne mu jaay benn këram pour am paas ak lu mu waajee pour ñëw ci bàyyi dafa bëggoon bàyyi ba nga xam ne su ñëwaan mbubb sol ko buñ ne ko maalam sa mbubb mi rafet na rek muslimi ko ne lemal leen ma ko dafa leen ma ko ci walis bi ma yor bàyyi mais comme rafet na rek dootuma ko sol moo lu rafet rek bàyyi ko war a doomam mu ma nettali mu ne bi mu jaayee këram na def koy ñëwee Kaolack mu a ko ah dem Kaolack nga ci jaay sa kër mu ne ko da ngaa xamut waaye li may def nii yéen laa koy defal te su ngeen xamoon lim leen di jëriñ ëllëg kon doo ci wax ak man ne ko man ma nekkoon ak sëriñ boo xam ne kayit yi rek la ma doon jàngal teere kayit yi liggéey bu nekk liggéeyal naa ko ko ma dem ba tase ak iyaaka iyaaka ci aw sa mooy mooy maanaam emuwaay koo xam ne koo xam ne dootu ma tase ku ku gën mukk ci àddina ma dem ba tase kooku may ma koy defal ngay wax mu mu ne ma ba ma waxee wax benn baat loolu nag itte jooju ba léegi mu ngi ci taalibe yu bari rawatina ci ubbi bi ñuy ubbi jumaa ji boo commencé fii mën ngaa commencé fii ci Gambie Guinée Mali Abidjan ak Côte d'Ivoire Togo Burkina Faso Ghana Nigeria Niger Mauritanie Tchad Soudan fu nekk nag ci àddina bi ay Pakistan ak fu nekk man fi mu ne ñu may may fax ay seen passeport pour ma utal leen visa ci Sénégal ndax mënuñu amuñu ambassadeur foofu pour ñu mën a ñëw teew si Medina Amérique noonu fu nekk nit ñaa ngi fay waaj fu nekk téléphone yaa ngi fay jógee di wax waaye nag yàlla mi nga xam ne moo leen màng di leen indi moom xam na ni mu leen di téye Medina nit ñi ñooy tiit ci li xew gu ndax xamuñ ci dara waaye yàlla moom xam na lii teew nii xam na lii ñëw wax naa ci ziyaara bi ne bàyyi ci dundam néegam ña fa daan toog fi mu nekk nii boo duggee néegam da nga xam ne nii ñu fi daan toog fi mu daan toog fan la ak nu fi fi woon waaye lu nit ñi bëri bari ci jamonoom moom ci kaw lalam lay tëdd waaye néeg bi dafay fees del te da ngay wax ne ñii boo defaloon saal boo xam ne fukki mètre la guddee sax duñu fa xaj te daanañ xaj foofu yàlla mi defoon loolu nag bañ xaj foofu dana defaat loolu ci Medina bañ xaj fi yàlla mi def mbóot ci arafa ba bu fa juróomi million tase itam ñëpp danañ fa tase ñëpp danañ def tawaaful ifaada bis boobu yàlla dana def moom mbóot moomu ci Medina ndax Baye wax na ne nag yi Medina gi nekk Medina yonent bi mbóot moo fa nekkoon royaat na ci Medina gi sarat laha sirru madinati nabi xabasaha tan fii bila tarayubi man kaadaha fa laysa za bi zahiri jarat zuyulaha ala alxawadiri jarat zuyulaha ala alxawadiri loolu rek baat boobu doy na mu ne Medina giri na sembaanam ci kaw capital yu mag yi kon li xaj ci capital yi danañ xaj foofu incha allah alhamdulilah sëriñ bi dafa am lenn rek laa mujjee laa mujjee laa mujjee ndax eh, keroog ci eh, ziar bi dañu ñëw ci jumaa ji ma gis jumaa ji lool ñu ngi nuyu ko bu baax baax moom itam ak ñi fi teew ñëpp eh, ma xool ko ma wax ak nit defe naa Cheikh Gassam Milan maa ngi ko naan xam nga lu ma yem ne ma man ne ko gis nga jumaa ji ku ñëw tey ji ba gis jumaa ji gisoon nga ko dem gis nga ko tey dina la leer ne ki yàlla xar pour mu war a liggéey jumaa ji xelam a ngi xaatir leneen bu jumaa ji pare wax naa ko ci ziyaara bi wax naa ne taalibe bàyyi taalibe diine yooyu am nit ñi maa ngi wuti Sénégal mbaa ñenn maa ngi wuti fii Alfayda FM nga gis ni diggante bi dëgg dëgg dara waru fi lu may rek mu rafet mu di tax pour mu di tax nag ñëpp ñoo ci am cër waaye seetaane naka njëkk bëggul lu baax seetaane bëggul fu baax itam ba tax na daañu ñaan nga ñaanal réew yi ñaar la waaye benn la jàmm nekk fi waaye mbokku taalibe yi nga xam ne ñoom ñëpp ko ci nekk jamono bi xëy na yaa ngi fukk bëgg dem ci ci ci ci ci jotaay bu màgg boobale lu yàlla defee may wër waaye may kattan itam mais itam loo xam ne mën danga ko fa yóbbu luy war a tax boo demee di nga siggi comme taalibe yooyu daal ñu tënk ko rek ñaan ak ñaani mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi fi ak ñi nga xam ne bu ëllëgee daañu déglu programme bi ñu nag ñu lay ñaanal nga yàgg fi lool ndax sag nga pour ñun ñëpp salaamaaleykum alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ci mbooti fatiha nga xam yàlla am na ci tur yu feeñ ak yu feeñut te lépp nag ay tur yu màgg ñu ñaan ci mboot salaatul faatiha yi nga xam ne tur yonent bi am na ci yu feeñ am na ci yu feeñut ak mboot yi ñu làmboo yàlla def jàmm ci diggante ñaari réew yi yàlla boole ñaari réew yi ni mu leen boole ci ak mbokkoo ci deret ak ci yàlla yàlla bu ko dara mën a yàq seen njiit yi yàlla na leen yàlla boole ndax njiit yi suñu dëppooyee rek peuple yi daal di dëppoo gi nekk seen diggante daal di yomb fan yële ci gannaaw waa Sénégal yu bari bañ déggee ne président Abdoulaye Wade wàcc na fii mm-hmm. dañ cee kontaan te sax nekkuñ fii Banjul amuñ fii dara luñ fii liggéey waaye kontaan nañ ci ndax xam nañ ne dana rattaxal diggante bi te bu rattaxee Sénégalais yi nekk fii ci bi danañ fi yaatu mm-hmm. Gambie yi nekk Sénégal tam danañ yaatu foofu ci mm-hmm. te loolu rek mooy li baax moo tax ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla dëgëral juboo boobu te saxal faw yàlla bu ko dara mën a yàq seytaane bi muy wax yàlla itam ne dana réeral nit ñi setti na ne na ko illaa ibadakal muxlasin mm. waaw ñi muxlasin la wax de ñu yàlla dañal waxul nañ ñi muxlisin muxlisin mooy ko xam ne yaa sa yaa sa bopp mm. muxlasin nag mooy ko xam ne yàlla ci boppam moo la gën kon yàlla ci boppam mën naa musal ñaari réew yi mën naa musal ñi ko dëkkee mm. ba seytaane du am ci ñoom loxo du am ci ñoom kàddu du am ci ñoom atte pexem yépp yàlla na saxal ko dëppale nguur yi jubal leen may leen xam-xam boo xam ne dafa yokk daa iman ba fi ñu bugg a eggalee réew yi réew yi àgg fa ci mm. jàmm ak ci yokkute mm. ak ci naataan mm. yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam wax na xadis bu raglu boo xam ne jar na nit ñi jub yonent bi ne na kama takununa yu walla aleykum nee na ni ngeen mel noonu lañ leen di fale waaw moo nit ñi war nañoo dafa rafetal seen jikko yi waruñoo jàmbatu sax bu dara xewee rek nañ xam ne ñoom seen bopp ñoo def waaw moo tax ñu ngi ñaan yàlla yal yàlla jubal xol yi yal yàlla defar jikko yi yàlla na yàlla ubbi bunti xeewal yi bunti xam-xam yi ci réew yi nii Gambie ak Sénégal ñi nga xam ne itam am nañ eena pour ñëw Kaolack fekke si bis boobu yàlla ñu yàlla may dund ñu ñëpp bañ fekkee ko ndax lu nekk ci loxoom la nekk soppali def koo yomb waaye lu muy soppalee ci suñu biir nag yàlla nekk lu baax ci ñun yàlla ñuy soppalil defaral ñu ubbil ñu bunt xeewal yi te boole ñu koy yombalal ñi nga xam ne ñoo nar a ñëw foofu Medina yombalal leen seen wàccaay yombalal leen lépp lu ñu fa bëgg a def ci lu baax ñi nga xam ne itam ñoom la ñuy fekk si ci Medina yàlla yombalal leen lu ñu leen ganalee ba nga xam ne kenn du ci tegoo coono yàlla moom lu mu enu Alfayda FM jaam du ci sonn mukk lépp noo xam ne nag daf bi jaam bi dana ci sonn hmm. moom lu enu jaam du ci sonn yàlla na ñu enul mboolem coono yi yàlla yàlla dindi sax coono ci suñu réew yi yàlla na fi yàlla dindi bekkoor yàlla saxal naata yàlla fi yàlla saxal xam-xam barke bàyyi itam yàlla na ko yàlla def fii ci Gambie yàlla def ci senegal te yàlla di ko yokk daayiman yàlla yokk mbugeel yi ndax su mbugeel yi yokkoo xeeweel yokku ndax bàyyi dafa ñaan wax ne niluhum wa zidhum bi qadri sidqi kulli kulli muridin minhum wa bi qadri shawqi mu ne nang leen may te dolli leen ku nekk nag mu ne kem nam dëggoo ak kem nam soppee moo tax yal na yàlla dëggal mbëggeel yi yal na dëggal soppi soppi cofeel gi bu defee ñaan yi bàyyi ñaan yëpp dafay daal di am wali yu moom du yokkal kenn waaw xam nga fii ci aada jigéen mën naa yokkal ko neex rek waaw waaye wali moom danay dem rek muy séddale séddale la kon mhm. yal na yombalal ñëpp dikki ba nga xam ne li bàyyi di séddale ñëpp danañ jot seen cër ci barke yonent bi sallam mhm. ci barke fatiha bi ma ubbee woon mhm. ci barke salaatul fatiha ci barke ñaari xadara yi nga xam ne xadaratu nubuwati wal wilayati ñaari xadara yi seen barke yal na yàlla dëggal loolu yal na yàlla nangu ñaan yi barke Cheikh Tidiane ci barke Cheikh Ibrahim radiallahu anhuma asalaamaaleykum waaleykum salaam wa barakatu alhamdulilah mbokk yi la ñu waxtu meen ñun ñëpp xam naa dañu ànd kontaan sant yàlla beneen yoon waaye ñaanal yàlla imam eh, Cheikh mu yàgg fi lool yàlla def mu wér yàlla li nga xam ne mooy mébétam te lépp nag nekk lu kowe yàlla matal ko ci kanamam eh, ñu ngi koy ñaanal yàlla di moom bu baax a baax wax dëgg yàlla di nuyu képp koo xam ne yaa ngi fi mbokk yi salaamaaleykum